mbégte janook yéen ni ñu koy defee saa su ne bu waxtu yu jotee mu di dimanche ñu waxtaanee lépp loo xamante ne moo jëm ci wàllum maanaam tàggat yaram tey jii nag ki nga xamante ne moo di maanaam soxna Adja bi tey tey maa ko fi wutu ndaxte dañu kaa yónni fële ci Lens ndax si kanam sax incha allah daañu jokkoo ak moom mu wax wax ñu nga xamante ne moom la fa jëlee ak ñan la jot a waxtaanal fi nga xamante ne mooy euh, fële ci Lens ak joueurs yi ndax sànq rek gis ngeen ki nga xamante moo di coach Aliou Cissé def na conférence de presse ak ki nga xamante ne moo di coach Rigobert Song ñoom ñaari def nañu conférence de presse loolu yëpp incha allah kii di soxna Adja bi tey dinañ leen ko jox tey nag euh, maanaam tey dem si euh, comme ñu ngi ko defee rek trio tey du trio tey duo tey ndax tey fi nekk sama poulain sama sama sama rak yi di alaaji Grégoire bu mbaax mi Greg maa ngi lay nuyu di dal ci plateau bi international fay naa la ziar bu baax a baax di nuyu itam mboolem askan yi nga xam ne ñoo ñuy teelu jamono ji bàyyi la nga présenté say voilà gan yi nag waaw euh, euh, gan wax pour la première fois mën nañu jàpp ne kenn ki mu ngi fi doog a ñëw mais ñëw na fi yeneen émission mais li nga xamante moo di mag bi nag pour la première fois je pense bien euh, mujj nekk ki nga xamante mooy joint sportif la nekk fële ca source A di Pape Djibril Gaye Pape Djibril ñu ngi leen nuyu jël dal ci plateau bi. bon maa leen di fay di kontaan ci invitation je pense dernière fois bu mujjee matinal la woon. Uh-huh. on avait parlé un peu de. de lañ doon waajal c'est l'occasion peut-être mon ami et frère di kontaan vraiment ci ñëw bi et yaakaar ne peut-être waxtaan loo xamante ni ça va beaucoup euh, étayer les vos téléspectateurs. merci beaucoup Pape Djibril Gueye nag moom nag ki mu euh, maanaam euh, deneel moo di le coach Malick Diop Malick Diop nag miin ngeen ko ci écran yi ndaxte saa bu xew-xew bu mag amee jëm ci wàllum tàggat yaram moom daf ñu maanaam ñëw assister ndax dañoo soxla li nga xamante moo di xam-xamam coach ñu ngi lay nuyu dëddal ci plateau bi. waaw baabu maa ngi lay maa ngi lay fay di nuyu Grégoire di nuyu Djibril euh, di nuyu téléspectateurs u 7TV yëpp c'est toujours un plaisir d'être là et j'espère qu'on va parler foot waaw maanaam on va parler foot effectivement coach ndaxte li ñu nar a waxtaanee parce que mën nañu mën nañu koo tënk ci ñaari poñ rek mooy tirage coupe d'Afrique bi nga xamante ne amal nañ ko barki démb daañu si wax la maanaam lu xaw a yaatu ak poule bi nga xamante ne moo di le euh, la poule de la mort te Sénégal nekk ci mu di poule C bi loolu yëpp dinañ ko waxtaanee incha allah ñu ci noppee aussi tamit daañu waxtaanee match bi ñu match bi ñu waajal ëllëg suñu diggante ak Cameroun mu nekk match boo xamante ne vraiment Camerounais ñu ngi ñu tëkku bu baax baax ci réseaux sociaux yi mais incha allah dinañ si waxtaanee léegi léegi ak suñu ay consultants grec mu mel ni nga xamante moo di final coupe du Sénégal jëm ci wàllum basket nga xamante ni moo di saison basket bi waa jàppal nag ne baabu loolee doxoon na rek diggante Dakar Université Club ak AS Ville bu Dakar jàpp nag ne Dakar Université Club moom mujjee am ndam topp rek li nga xamante ne ni moom mooy tànki duchesse yi muy ndab loo xam nag am nañu ko 72 à 55. ni ñu ko gisewoon rek ci wàllu jigéen ñu mel ni nag duc jamono ji rek dafa mujjee dëppati carte gi buñ koy xayma ndaxte ah, ñoom dañu rek ah, mujjee woon na ah, nekk di daw ci ginnaaw score ba noonu ñuy am égalité club municipalité nag nekk jamono ji li nga xamante ne ni moom defoon na ci rek jéego bu rëy tey jii nii bu ñu koy xayma tam troisième carton bi rek la ñu def di def différence bi foofu dugal nañ fa rek lu toll ci fukk ak juróom-ñett maanaam 18 points yoo xam ne rek moom moo waral tey jii ñu daal di jël avance ci bile match ginnaaw nag li nga xam ne jot nañu ko nemmeeku rek moom mooy nag AS Ville de Dakar mujjewut a dellu si ndax dafa rek ñàkk adresse ci njeextalu match bi loole nag waral tey ji rek daal di sauver saison ak li xamante ne ni ah, moom mooy trophée bi nga xam ne daal jot na ko gàddu mi nekk final nag comme ni nga ko waxee rek moom moo ndar képp tey lii di championnat bi. moo ndar képp li nga xamante moo di championnat bi Pape Djibril mu nekk pour la mu nekk premier trophée jëm ci wàllum basket ñi si góor yi dugg gannaaw bi nga xamante ne jigéen ñi jël nañu ñaari trophée eh, si saison bi. oui mën nañu wax ne ren moom vraiment euh, de satisfaction la pour pour pour pour, pour les étudiants parce que sur une saison si tu parviens nga am ñetti trophée donc déjà loolu loolu satisfaction déjà Duc a perdu je pense deux finales avant mu doon jouer finale bi euh, donc suñ ci dollee ko ba booleeg semi week-end bi passé nga xamante ne nii aussi jigéen ñi ñoo gagné. Sénégal donc euh, mun nañ jàpp ne satisfaction la mais li ñu mën a retenir ren ci championnat peut-être. mooy niveau au niveau des garçons parce que seetlu nañ ne peut-être au moins di nga am 4 ba cinq équipes yoo xamante ne nii du ma ne yem nañ doole mais mun nañ jongante seen biir ce qui n'est pas le cas si si jigéen yi parce que dernièrement sax ñu maa ngi doon dégg ñu ne <clears throat> excusez ñu ne trophée ren du am mais finalement gis naa ne dinañ ko attribuer parce que euh, apparemment dañu mettroon sur la table que niveau bi jógul trop pour que peut-être ñu mun leen euh, évaluer par rapport ak critères fédération sénégalaise Euh, fédération sénégalaise de de basket peut-être satisfaction la ñu gis ne a <clears throat> chaque fois dañuy rehausser dañuy pousser peut-être compétition di di gën a am entre entre les différent euh, différents clubs li des mooy peut-être accompagnement bi def de sorte que peut-être les meilleurs joueurs euh, chaque année peut-être ñu bañ a quitter championnat yi comme ni ñu ko faralee di gis dernièrement gis nañ Samba Dali yi jóge na fi mm. te moom lañ peut-être pressentir que sax mu nekk MVP ak yeneen joueurs yoo xam ne saison yi passé comme ay Boissy donc à chaque fois da ngay gis championnat bi Euh, des joueurs yoo xamante ne nii dañuy vraiment dañuy éclore dañuy wane de bone choses mais après dañuy obligé dem peut-être muy wane peut-être euh, taxawaay sur le plan financier bi nga xamante ni club yi amuñ ko mu nekk benn jàngat boo xam ne nit ñi war nañ ci taxaw xool nañ la ñuy def ba dooleel club yi ba gën a may doole suñu championnat. mais am na tamit beneen loo xamante ne ñu ngi koy junj parce que dañuy wax li nga xamante moo di saison bi. Mhm. day gudd trop trop mu si góor ñi ba si jigéen ñi day day nekk lu métti la nga xamante moo di si les les athlètes de même que tamit day métti si ñi nga xamante ne mooy président yi nga xamante seen poche pour alimenter lii club bi. effectivement xam ni ñu ko doon waxee ci euh, ci. dernièrement ci football bi comment faire pour accompagner les clubs cest dañu war a dépasser foo xamante ne ni équipe yi benn nit moo koy yor c'est souvent loolu lañu gis da gis benn nit mooy nekk ci ginnaaw moom mooy génne xaalisam donc dañu war a def de sorte que environnement sport bi club yi am ñoo xamante ne nii dañu leen di gunge gunge leen de sorte que quelque que soit longueur saison bi peut-être dinañ mun a sa dinañ mën a tenir mais da gis club yoo xamante ne nii début bi dañuy dañuy dañuy baax. Mhm. dañuy enchaîner ay résultats. mais au fil ñuy dem ci saison bi duñ mun a continuer euh, enchaînement boobu parce que dañuy am des difficultés même pour faire une très préparation. keroog euh, équipe bu Louga bi joué demi-finale information yi ma am joueurs yi bi ñu ñëwee ba dakaar ci lañ décidé ne finalement dañuy jouer parce par paraît-il ils sont restés peut-être des mois sans salaire et tout et tout donc yooyu ñoo nekk ci biir de telle sorte que euh, des fois niveau bi championnat bi war a am peut-être du fa toll li nga wax tamit dëgg na euh, gars yi war nañoo xoolaat nan la ñuy réorganiser de sorte que vraiment saison bi gën a gàtt mm-hmm. gën a gàtt mais saison boo xamante ne nii day tirer en longueur aussi ça ça ça n'aide pas trop. ça n'aide pas trop merci beaucoup euh, Papa Djibril Gueye léegi nag El Hadj Grégoire dañuy dugg ci maanaam ci wàllum euh, football ndaxte grec amal nañ lu yàggul rek li nga xamante ne moo di tirage Coupe d'Afrique des Nations. waaw daj dëpp gi baabu jàppal nag tey ñu ngi ko fas yéene rek commencé ci weeru janvier fukki fa ak ñett lay doon jàpp rek fukki fan ak benn ci weeru février ñu nag duppee ko tey jii li nga xamante ni moom mooy la grande messe du football africain nar a amee foofee ca biir Côte d'Ivoire tirage au sort bi amal nañu ko ci njeextalu ayu bés bu ñu weesu ñu xool jàngat bi te ñëw. même bu dee sax 13 janvier jotagul pour ñu tàmbali li nga xamante ne moo di coupe d'Afrique des nations waaye équipe yi nga xamante ne jot nañ see qualifié ku si nekk xam na adversaire am mu mel ni Sénégal ci group bu mu bokk ci CAN 2024 bi nar na métti ndax dañ si nar a dajal équipe bu mag a mag mu di Cameroun moom bi nga xamante ne sax war nañu jouer match amical fële ci Lens ci altine ji ba tey ci groupe Sénégal bi daañu daje équipe yi nga xamante ne ñoo di Guinée ak Gambie doon suñu ay voisins ñu mën a jàpp ñaari match yooyu ay derbi yu méttee métti la nar a doon. Sadio Mané mi nga xamante ne participé na ci tirage bi moom daal mu ngi woon ay santiment am waaw ci groupe bu metti lañ bokk en tout cas dina def suñu kéemtalaay kàttan pour mën a génn li nga xamante ne moo di ci premier tour bi bu dee sax loolu du yomb xam nañ bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoo di waa Cameroun waaye ci sama wàllu bopp nag mën a jàpp ne man moitié Gambien laa ak moitié Guinéen kii di ancien Ballon d'Or bi mu ngi wax ne Sénégal dina jouer grande majeure chance ndax dafa jàpp ne compétition dong la Côte d'Ivoire mi nga xamante ne moo nar a dara xew bi ñoom tamit dinañ am match bu mag a mag seen diggante ak Nigéria ak dëkk bi nga xamante ne moo di Guinée équatoriale ak Guinée Bissau nekk ci poule A bi. Égypte miy jël juróom-ñaari yoon lii di coupe d'Afrique bi moom daal mu ngi bokk ci group B bi bokk ak dëkk bi nga xamante ne moo di gana Algérie mi toogoon premier tour ci coupe d'Afrique bi weesu moom daal dina daje ak Burkina Faso ci groupe D bi. tamit amul lu yomb. comme li koy daloon ci CAN 2022 bi rek moo ko dalaat ci CAN 2024 bi ndaxte mu ngi bokk dëkk bi nga xamante ne moo di Mali même poule bi te Mali sax moo ko dooroon te poule bi ni mel Afrique du Sud ci la bokk mu di poule E. bi gis nga poule e bi nga xamante ne Sénégal ci la bokk ñu bokkoo Cameroun Guinée ak sunu voisin ñi nga xamante ne moo di maanaam Gambie sa première impression gannaaw bi nga gisee li nga xamante moo di tirage c'était quoi. waaw man euh, man franchement ñu ñu tiré affaire yi ba pare euh, dama amoon tuuti soulagement quoi. ah bon tuuti soulagement oui. parce que c'est une poule où qui tout de suite dans la compétition c'est-à-dire poule la poule la ñu am boo xam ne euh, benn classique mooy Sénégal Cameroun ñaari bi donc on n'a par le temps de de de de de. amuñu temps mu nelaw c'est-à-dire dès l'entame de la compétition da nga fa war a da fa war a nekk et quand tu sors d'une poule comme ça après au niveau mental euh, euh, da ngay nekk à un certain niveau parce que soo génnee ci poule bu méttee nii mhm. mooy ça veut dire que tu auras déjà franchi ay difficultés donc à partir de sa moment pour suite compétition bi dangay am ay repères par rapport ak li nga jot a mhm. dans dans dans dans le groupe donc poule bi boo ko seetee tu commences par un derby Euh, contre euh, la Gambie jewaat beneen euh, classique contre le Cameroun ensuite teg si teg si Guinée donc day nekk trois matchs difficile donc les joueurs n'ont pas non n'auront pas le temps de de de monter progressivement mooy ça veut dire que dès le début de la compétition dañ fa war nekk et en général genre poule bu mel nii su fekkee ne danga nga si génn en toute confiance après match bu ti ñëw après si phase à élimination directe yi da ngay am les capacités de pouvoir s'en sortir. mais question man la bëgg man yow en yow réaction bi nga am par rapport ak sénégalais yu bari techniciens yu bari. Mhm. dafa ute quoi parce que yow nee nga am soulagement. alors que même même le coach principal monsieur Sané mat poule boo xamante ne poule bu nar bu jafe-jafe-jafe ci la Sénégal nekk. mais poule bu jafe boobu moo tax ma am soulagement parce que xam nga lan la sénégalais di fàtte football du la nous on est on est champion d' Afrique deux mille vingt et beneen coupe d' bu bees la. te football euh, li gën a metti mooy confirmé en Afrique dañu seetlu ne euh, depuis Égypte bu mu teglee affaire yi ba léegi. à chaque fois le champion d' Afrique su ñëwee day nekk dans la difficulté. Algérie moo ko dal bii passé. moo nekkoon champion d' Afrique mais bu mu ñëwee premier tour la génn. effectivement donc donc contrainte yooyu ngay am mais poule bi dalay day maintenir. Euh, euh, nu ma ko waxee sa niveau mental. Mhm. daf koy maintenir à un certain euh, à un certain degré donc doo doo am temps wu bàyyeeku. Mhm. parce que xam nga ne tu commences par un derby la Gambie qui rêve de toi depuis longtemps. Mhm. tu tu la Guinée qui qui qui qui qui est toujours prêt à se battre contre toi mais mais mais mais mais de façon ak adversité bu doy waar. nga am Cameroun mu nekk match boo xam ne aussi c'est un potentiel concurrent à la à la donc amoo amoo temps wu. Mhm. bañ a bañ nekk si com bañ nekk si compétition bi. donc de en temps si nekk te soo si génnee si loolu mooy après tout suite après dangay am ressources yi. Mhm. pour mun a attaque après les les les prochaines mhm. étapes. moo tax man pour man mu ne soulagement parce que euh, manque d'humilité du ñu mun a dal. parce que te te en général euh, champion bi bu bu excès. comme Algérie li ko dal bi passé manqué humilité ñëwee ak bu mu champion d'Afrique am après éliminé au premier tour day nekk difficulté mais là on n'a pas le temps de de de de euh, suñu humilité dañ koy dañ koy garde suñu concentration dañ koy dañ koy garder moo tax ma ne poule bi euh, quelque part c'est pour nous c'est c'est une chance day même même même même sentiment ngay partagé ak li nga xamante mooy le coach yow gis nañu waxtaan nañ li nga xamante mooy maanaam bi bi ñu tiragé euh, waxtaan nañ lu bari ci groupe bi. Mm-hmm. mais yow euh, ba yow ban d'abord ban euh, impression nga am bi gannaaw bi nga xamante def nañ tirage bi yow da ngaa est am nañ am nañ problème muy wax wala yow da nga am danga am li comme li coach bi wax rek maanaam soulagement. bon moi je dirais pas soulagement mais par contre aussi li mu wax dëgg la cest à teel a dugg ci compétition bi dafa baax soo seetloo bi ñuy coupe di coupe d'Afrique bi passé avant ñuy dem euh, dañu jàppoon ne suñ coupe poul bi dañuy ñëw ci boole c'est vrai que euh, au départ on n'avait pas nos meilleurs hommes et tout avec Covid bi ak yenn joueurs yi nga xamante ils étaient euh, forfaits et tout euh, mënuñu woon démarrer compétition bi si je peux si soo xoolee Sénégal dafa am difficulté pour pour pour génn parce que peut-être mun naa ne dañu xaw a sous-estimer adversaire yi wala dañu waxoon ne su ñëwee dañuy jàll seen kaw. Mm-hmm. peut-être ça n'a pas été donc li mu wax c'est vrai parce que déjà présent je sais que mentalement euh, joueurs yi ñu ci bëri ñu ngi dugg ci compétition bi daa sànq maa ngi déglu Kalidou Koulibaly il disait que on va balayer on va on va essayer de combattre. toute équipe bu taxaw sunu sunu kanam dañ koy jéem a dañ koy jéem a combattre combattre donc je pense que déjà nga am ay adversaires yoo xamante ni nii c'est des adversaires de taille devant toi. ça te met rapidement dans le bain dans le bain alors que si c'est pas cas peut-être toujours soo seetloo match Sénégal yi toujours c'est par rapport à l'adversaire le Sénégal joue mm-hmm. je sais pas si yéen a ngi ciy bàyyi xel. si si si dernièrement contre Brésil. Mm-hmm. yéen a ngi gis niveau de jeu bi Sénégal indi. Mm-hmm. alors que peut-être su fekkee dafa tase ak de petits poussés souvent il est en difficulté wala il cherche à se je sais pas wala day day day sonn. yéen a ngi fàttaliku Eswa je ah. pense Eswatini la bu ñëwee fii bëgg ñu créer bëgg ñu fi dóor ah, mhm. donc soo xoolee tirage yi dans la dans sa globalité moi je dirais que on pouvait pas s'attendre à, à, à un groupe facile parce que déjà ak configuration pot yi Sénégal pot bi mu nekkoon pot pot bi pot deuxième pot bi mhm. nga euh, chapeau bi excusez-moi nga xamoon ne y avait Cameroun Nigéria et tout forcément Mali di nga dal ci benn benn benn équipe bu mag mhm. maintenant euh, si on essaie de revenir euh, si sunu pool bi euh, c'est vrai que c'est de gros morceaux c'est de grosses c'est de grosses équipes mais ay équipe la yoo xamante ne nii peut-être xaw nañ xamante tuuti soo xoolee suñ si on revient un peu sur les statistiques et tout. Mm -hmm. Sénégal peut-être euh, a une petite ascendance si ay Guinée nga xamante ne lii. Euh, c'est vrai que kan bi kan kan bi passé moom moo ñu moom moo ñu sonal il a fallu match bi bi mu jeexee bi ñu defee match nul ñun ñu nekkoon je sais mais ñu fa nekkoon ñëpp dañu kontaan dañu jubilé ci pet parce que match boobu pare mënoon nañ ko mënoon nañ ko ñàkk. si mënoon nañ ko ñàkk. avec un bon Sénégien. avec un bon Sénégien ko ñàkk. maintenant je disais c' est des équipes yoo xam ne xam nañ ko c' est dans sous région toujours derby la day métti. Mm-hmm. Gambie je sais pas si vous en souvenez euh, éliminatoire mondial ak CAN combiné en 2010. Mm-hmm. 1-1 lañ def ak moom. si si si dafa métti woon c' était c' était difficile. Mm-hmm. Cameroun. la dernière fois bu ko Sénégal gagné il y a 33 ans. c'était phase finale Coupe d'Afrique. Mhm. c'était en 2000 euh, en en 90 à Annaba le 6 mars quelque chose comme ça donc gis nga 33 ans ci lañ mujjee gagné Cameroun phase finale Coupe d'Afrique entre temps muy gagné ñu 2000 2000 2017. 2017 deux matchs yi lañ ak 2002 je pense mhm. en finale. en 2002 finale. en en voilà donc cela veut dire que. c'est des adversaires yoo xamante ni xamante xamante ngeen. effectivement vous connaissez seul seul seul la Gambie nga mus nga nga fubalagul en phase finale de CAN sinon ñi ci des ñëpp jot ngeen fubal phase finale de CAN. maintenant euh, Sénégal su fekkee dafa war a prétendre gagner coupe. Mhm. conserver titre am. Mhm. Euh, waru toog fii di xalaat di xalaat ay Gambie wala non je sous-estime sous-estime kenn mais waru fi nekk di xalaat ay Gambie non Sadio Lo la Sadio nee na amatul benn équipe boo xam ne on va jouer les matchs à fond voilà c'est ça soo gisee poulu poulu poulu poul A bi mais attends euh, Nigéria y a Nigéria là-bas y a y a les pays hôtes y a la Guinée équatoriale te Guinée équatoriale je sais pas si vous en souvenez la Côte d'Ivoire sunu quart de finale ak moom c'était pas du tout évident donc poul yëpp a métti maintenant compétition la. il faut y aller avec ses armes. d'accord et je pense que le Sénégal a le groupe qu'il faut vraiment pour euh, pour pouvoir se qualifier. Grégoire mu nekk trois matchs trois matchs trois matchs yëpp mu nar a nekk finale pour le pour le Sénégal. waaw c'est bien de parce que aussi gis nga compétition bi passé woon niñ niñ ko démarré moom mooy lan dañu dem fekk ñoo xam ne yaa ëpp doole foofu donc il fallait venir dérouler faire le jeu et tout donc euh, boo xoolee kan bi wee aussi la Guinée dafa jouer le match de sa vie contre le Sénégal. euh, la Gambie a fait pareil face à la Guinée ba éliminé ko. Mm donc c' était la surprise générale. ce sont des équipes yoo xamante ne ce sont des équipes montantes fi ñu toll nii ci football donc euh, tey fi ñu toll nii c' très normal parce que le Sénégal quoi qu'on puisse dire aussi en Afrique c' est l' à battre. Mm à battre ci lan ci niveau star yi ñu am mais aussi tey ci li nga xam ne ñu ngi ci doon xaar moom mooy. on y va en tant que tey tenant du titre donc tey booy dem tey en tant que tenant du titre ci benn compétition dafa am loo xam ne ñu ngi la koy xaare moom mooy d'abord le caractère bi nga war a indi mais également euh, au de jeu li nga war a proposer mais surtout sur le plan mental parce que aussi gagner une compétition mosuñu ko woon a def maintenant repartir dans une compétition avec un trophée loolu la Sénégal tey moom moo nekk defem dans cette compétition là tey on y va tey dans un boo xamante ne ni ce des équipes yoo xam ne tey bu ñuy football ak ñoom xare lay nekk. Mhm. donc tey Sénégal bu gañee Gambie coow du am dañ naan moo ko mën c'est logique mais tey Gambie tey 45 minutes bu na traversé Sénégal lu ñuy wax te Sénégal tenu en échec. Mhm. donc il faut savoir que tey niveau de compétition bi ak niveau de jeu bi dafa évoluer Gambie bi ñu seetaan mën naa ne tey c'est une équipe boo xamante ne nii euh, waxuma la Sénégal mais Cameroun ci boppam sax ñoom ñu ngi koy xalaat. donc euh, je vais moom mooy euh, le premier match du Sénégal qui aura toujours cette saveur particulière là il faudra savoir faire la différence dès l'entame te c'est très tey ñuy door a comprendre l'importance des matchs yi nga xam ne Sénégal ñu ngi koy jël donc euh, jouer l'Algérie jouer le Brésil tey c'est deux choses yoo xam ne mën nañu apporter lu bëri moo tax tam xëy na match bi nga xam ne tam war nañ ko mën a jouer suba dina am lenn loo xam ne dina ko def ci compétition bi parce que sànq boo ko dégloo tam xaw na feeñ ci conférence de presse yi dinañ ci ñëw léegi nii mais dire que dans dans groupe là pour man rien ne sera facile pour le Sénégal maintenant pour nous faciliter la tâche moom mooy euh, bañ a tomber dans le calcul bañ a tomber dans le calcul moom mooy ne pas regarder ce que fait l'adversaire mais venir tey avec ses propres idées et dérouler son football et ne pas l'adversaire tey le soin de te faire douter parce que on est champion d'Afrique on y va avec ce costume là tout le monde va s'attendre à ce que voilà le Sénégal ñëw mmh. de jouer maintenant éviter le syndrome l'Algérie moom mooy tey le principal défi d'Aliou Cissé pour l'éviter nag on en face des équipes yoo xamante ne nii bon ay outsider la ñu yegsee à part le Cameroun bi nga xam ne moom moom moo ñu gagné en et aussi am na foo xam ne jot nañu jaar ak ñoom. Guinée football nañ Gambie aussi pareil gëj nañu daje te entre temps beaucoup de choses changé. donc tey il faudra pas du tout euh, ñu ñëw dans dans ces di douter on fera très tôt faire la différence et puis se mettre à l'abri pour pouvoir maintenant aborder le Cameroun avec beaucoup plus de sérénité parce que man euh, la Guinée bi ma gis nii aussi mën na nekk une équipe boo xamante ni mën na contrarier Cameroun jusqu'à mais gannaaw ci loolu ki nga xamante moo di ñu tiragé ba pare wax na ci li nga xamante moo di maanaam poule bi. waa gis-gis bi mu ci am rek moom mooy c'est un groupe assez relevé boo xamante ni tam tout sera disputé jusqu'à la fin ñu déglu. Un groupe difficile, j'entends un groupe de la mort, mais je crois que nous, aujourd'hui, on a, on a quand même un, euh, on est à notre quatrième CAN et je peux vous garantir que quand on regarde la constitution de ces groupes-là, euh, serait manquer d'humilité de penser que parce qu'on est dans le groupe où il y a le Cameroun, la Guinée et, et, et, la, Gambie, que ça va être, ça va être facile. Non, non, non, non, Aucun groupe ne sera, facile. Aujourd'hui, le football africain est progressé. Les fédérations sont s'améliorer. Les équipes, aujourd'hui, sont mieux, en mieux, de mieux en mieux préparées. Les joueurs se développent encore de plus en plus. Et si pour exister, vous l'avez vu, avec le Cameroun sur les éliminatoires de la Cannes, Vous avez vu à quel point ils ont trimé, à quel point ça a été difficile pour se je le dis, pour le continent au départ et la fin. Donc il faut être prêt sur Et notre objectif, c'est de préparer cette équipe sur le plan aspect, sur le plan technico-tactique, sur d'autres plans pour vraiment aborder ce, premier match contre la Gambie dans les meilleurs et surtout rentrer dans la compétition de la meilleure des façons. Nous ne sous personne. Depuis Alors, ah, on a toujours gardé notre humilité, parce que c'est important. Il euh, dans cette canne euh, euh, assez de, de, de, confiance, de confiance, tout en gardant notre, notre, notre humilité d'habitude. ki nga xamante mooy le coach Aliou Cissé doon wax ci li nga xamante ne moo di pulu Sénégal lu mu relevé mais coach Euh, dañ gis nañoo gis ne Gambiens yi les Gambiens dañoo rêvé jouer ak équipe bi nga xamante moo di Sénégal en phase de en phase Coupe d'Afrique dem gis nañ ko da wër ne du nekk match bu yomb de même que ñi nga xamante ñoo di les Guinéens seen Coupe d'Afrique bi passé c' mën nañu jàpp nañu seen match seen match de Sénégal parce que gis nañ ki nga xamante mooy le coach Kaba Diawara bu mu duggee si vestiaire du mu doon ñaax joueurs yi ñu bañ a perte li di que Euh, le titre de champion d'Afrique ñun ñoo koy yóbbaale au euh, euh, en en Côte d'Ivoire donc tout le monde a, envie de jouer le championnat d'Afrique et à fortiori bu nekkee sa voisin donc c'est normal que ñoom ñu bëgg ñu bëgg jouer ak ñun mais jouer ak ñun aussi peut comporter des risques pour ñoom. Mm-hmm. parce que le Sénégal quand même egg si na si benn niveau de de performance boo xam ne moom ñun ñu ngi xalaat ne ñoom match yi mën na mettre si ñoom mais. Sénégal léegi ku muy jouer n'importe quelle équipe aussi dina xam ne Sénégal aussi euh, ça court c'est c'est des risques de jouer contre moom mais li ma doon wax li ngay wax ni day confirmer li ma doon wax ne soulagement la si awam parce que suñu degré de motivation ak euh, humilité bi Aliou doon wax léegi ak suñu degré de motivation daf ñu koy mun a mainteniral au niveau souhaité parce que sooy dem euh, en en en tant que champion d'Afrique tout le monde veut veut veut donc euh, yow soo amee poule bu difficile noonu ak ay adversaires qui sont des voisins et qui rêvent de te rencontrer donc à partir de ce moment yow euh, sa motivation day naturelle euh, mais aussi da mun a permettre nga garder humilité bi nga xam ne moo moo approprié pour mun a am benn niveau de performance bi mm-hmm. donc mais que eux i i qu'ils veuillent jouer dafa nekk après tirage rek mais je suis sûr que su fekkoon ne ils avaient le choix pour de tirer les équipes contre lesquelles ñoom la ñu war a jouer ci Coupe d'Afrique bi. je suis sûr que ne Sénégal du ci bokk. Sénégal euh, du ci bokk euh, Pape Djibril euh, gis gis ne dañuy wax ne Aliou wax ne conserver li nga ko mais conserver ko moo gën a moo nar a gën a metti li nga xam ne mooy Coupe d'Afrique 2024 bi mu donc muy war a ne ko li nga xam ne mooy suñu premier match contre la Gambie dañu war a nekk benn maanaam moo dañ ko war a réussir pour mën a gën bu baax li nga xamante moo ci compétition bi. effectivement moom laa doon bi. dañ ci war a dañ ko war a commencer ak ay certitude hmm. c'est-à-dire si tu commences la compétition dès les premiers matchs nga nga ciy dem ak ay doute rek euh, déjà blocage lay doon sur le plan psychologique et ça peut déteindre sur les performances euh, soo xoolee et c'est devenu du ma ne xaw ma règle la xaw ma mais wala poisse la en tout cas ñiy gagné CAN bi yëpp compétition yi ci topp dañu am difficulté. du nekk benn poids boo xamante ne wala benn pression. mu nekk ci biir ci ci biir parce que tu es tu as attendu en 2017 bi Cameroun gagné CAN bi bi mu ñëwee huitième de finale la toog. effectivement Côte d'Ivoire euh, kii moo ko Nigéria éliminé ko. Mm-hmm. année bi ci topp. Algérie Algérie génnu sax phase de poule. Mm-hmm. mais je pense que cette équipe sénégalaise là vraiment s'il jour vraiment avec ses ses ses, ses ñu bañ a nekk fii di calculer. et puis bon je sais peut-être on a la chance d'avoir benn groupe boo xamante ni nii. y a des joueurs matures. Mm-hmm. ñoo xamante ni nii au moins ñi def nañ cinq CAN ñi def nañ quatre. ñi def nañ trois peut-être am na ay booy ci grève mais ce qui est sûr group bi ah euh, joué nañ euh, en 2017. je sais pas si war a y a Sadio Mané y a y a Gana Gueye y a Cheikh ya y a y a y a Kalidou Koulibaly y a l'autre là te tey jii peut-être mun naa ne soo génnee peut-être euh, Gana te Gana sax on sait jamais mun na nekk titulaire peut-être soo génnee Kouyaté ah soo génnee au moins tu as yooyu mu leer na ne wala trois yooyu mën nañ jouer donc on a cette Euh, euh, je pas continuité boobu am nañ joueurs yoo xam c'est des joueurs d'expérience yoo xamante ni war nañ mën a gérer pression match tey jii match contre Gambie yooyu lañ soxla ñoo xamante ne nii duñ emballé wu duñ topp adversaire bi par rapport ni muy gere parce que ce qui est sûr voilà at Gambie suñu ñëw. il va y aller avec détermination. fou il y aura beaucoup de défis physiques il y aura beaucoup d'engagement nag. c'est à nous de jouer sur nos valeurs xam ne ñun duñ équipe bu ndaw. Mhm. Sénégal est cité nu sommes dans le top 20 sur le classement. mondial mondial mm -hmm. donc on doit avoir beaucoup plus de maturité pour aborder yenn match contre la Gambie et je pense que c'est un match qu'il faudra gagner. Mm match la boo xamante ni soo ko perdre y a de fortes chances nga ñibbisi. Mhm. y a de fortes chances nga ñibbisi parce que après. Euh, sa deuxième match je pense Cameroun ngay am dernier match bi nga am beneen derby boo xamante ne nii ce sera contre je pense que c' est un match boo xamante nii mun naa ne moo nekk bu gën important ci euh, ci compétition bi euh, heureusement que nekkul Cameroun man je préfère jouer contre la Gambie que que Cameroun ah, parce que tey ji su nekkoon Cameroun certes les gens vont dire que Cameroun il a am na difficulté pour qualifier pour CAN beeg yooyu ils avaient des difficultés mais sur le plan du groupe groupe bi le Cameroun ñoo gën a ñoo gën a baax groupe il a des individualités yoo xamante ni ñi ils peuvent à tout moment créer la surprise créer la sensation wala voilà, la différence donc moi je vois que vraiment euh, c'est vrai que un match n'est jamais gagné d'avance comme humilité bi gars yi di wax dañ ko war a yóbbaale maintenant nag bu ñu ragal il va falloir qu'on sur nos atouts sur nos vraies valeurs ñi war a fubal fubal. ñi war a fubal toog xaar. ñi war a fubal euh, toog xaar alaaj Grégoire la nga jàpp ne comme li Pape Djibril Gueye wax suñu premier match dafa war a nekk match boo xamante mooy lancer coupe d'Afrique bu Sénégal. li koy lancé baabu du leneen lu dul euh, dem ak suñuy valeur dem suñuy valeur moom mooy savoir contrôler tey euh, ñàkk souci bi nga xam ne Gambie dina ko indi parce que aussi équipe la boo xam ne amul dara lu muy ñàkk ci kanamu Sénégal donc ci lancer bi mu nekk ci loolu lay continuer. ñu ngi ci phase boo xamante ni depuis la coupe d' de des ba léegi ci loolu la ñu ne te boo xoolee Gambie tey euh, c' nation boo xamante ne nii équipe yu mag yëpp yu nekk yëpp moom ak Mauritanie ñoom ñoo leen lëbbee donc euh, ñaari réew la yoo xamante ne ni tey xam nañu tey euh, li nga xam moom mooy pois jouer ak une grande nation donc amuñu lu ñu ciy def ñoom lu ñuy def la ñuy def donc une jouent tey ci qualité yi nga xam ne moom la ñu am nawuñu fi di créer jeu bu ñu gisul lu ñu xam ci ginnaaw dañuy balancer. à chaque fois qu'ils voient aussi les opportunités dañuy dem chercher ji donc tey Sénégal euh, sas bu njëkk bi muy am moom mooy savoir contre l'adversaire yi moom mooy pression bi Gambie di jéem a rejeter suñu kaw aussi ñu dal parce que aussi xam nañu lan mooy match joué ak équipe boo xam ne yaa ko ëpp doole donc euh, on a ces bañ a calculer tey ce que fait l'adversaire comme ni ma la wax sax donc euh, benn pàcc la boo xam ne tey si le Sénégal réussit à le faire très du dute du am benn jafe-jafe tey ci suite compétition bi parce que particularité match boobu noonu tey moom mooy ci ngay signalé wu ci say adversaire yépp ci compétition bi Nigéria kan bi passé loolu la def dafa ñëw tapé très fort mais heureusement euh, tey euh, malheureusement sax laay wax ci ñoom fi ñu fi ñu réussirul seen compétition moom mooy dañu fàttewul woon seen premier tour gi ñu génnee te Sénégal tey sasam bu njëkk tey moom mooy fàtte ne gagné naa coupe d'Afrique ba pare compétition la ñuy dem jouer ji on a rien loolu bu ñu ko dugalee suñuy bopp dinañ dem jouer tey ak li nga xam ne moom mooy xel bu dal waaye aussi dem jouer tey en tant que une équipe boo xam ne c'est une équipe conquérante foofu rek la affaire yu féete amul benn secret. d'accord loolu nag moo nekkoon pàcc bu ñu doon waxtaanee jëm ci wàllu maanaam tirage bi xam naa sunu yeneen maanaam jotaay jëm si seen magazine bi di sport succès gën a ak tamit euh, maanaam yeneen borom xam-xam léegi nag euh, Grégoire dañuy dem fekk ki nga xamante moo di soxna Adja fële ca Lens. waaw soxna Adja Babou elle nous a fait le point par rapport ak l' bi nga xam ne Sénégal mu ngi koy waajal jëm ci digganteem ak Cameroun ñëw na tam ci li nga xam ne ah, moom mooy la première séance d' entraînement. jërëjëf Babou jërëjëf Grégoire mu ngi fi ci stade Bollard bu Lens ñu ñu jaajëfal téléspectateurs yi sa pour suñuy programme ñu aussi suñuy invité coach. Cheikh Oumar nuy aussi suñu confrère Pape Djibril Gaye ni ngeen ko waxee noonu la tey joueuru Sénégal amal nañ seen tàggatu gu njëkk fii ci pelouse stade Bollard bi 17h jotee ba ñu ci jógee tamit benn waxtu moom Aliou Cissé janoon ak taskatu xibaar yi bi mu ci jógee gis nañ saa fonte bu am solo bu mu def moom ak Rigobert Song d'ailleurs ci sunu mag bee ñu weesu gis nañ ay similitudes yu am ci ñaari anciens internationaux kii di doomu Sénégal keneen kii di doomu Cameroun suba nag euh, ñu war a daje ci ab ndaje xarito mais question yi gën a dellu siwaat bu ci kanamee sax di ngeen ci ñëw certainement mooy rencontre bi war a dox seen diggante mu soxal deuxième journée bu phase de groupe bu CAN 2023 waaye ñoom ñaan ñëpp lu ñu xamale mooy rencontre amicale bi war a am suba bu am solo la te du ñu jouer euh, frein à la main lépp lu ñu mën dinañ ko def ndax duel de Lion la ci duel de Lion boobu nag kan moo ci jël ndam bu subaa dinañ ci dellu siwaat incha allah nu mu gën a yaatoo wala suñu yeneen édition d'ailleurs du ñu bef lu dul bàyyi leen bu ci kanamee ngeen ñëwaat ci réaction seeni différents sélectionneurs conférence euh, d'avant-match ak aussi le capitaine des Lions Kalidou Koulibaly balaa ñuy ñëw nag suba ci le match euh, proprement tout en souhaitant bonne chance au lion de la Teranga ndax saa sune ne euh, ni ko le sélectionneur national waxee Aliou Cissé

Euh, moom tatana maanaam euh, tegoon na micro am gannaaw bi it Aliou Cissé def li nga xamante moo di conférence de presse waaw ce qu'il nous moom mooy sont conscients de l' mental bi nga xam ne moom mooy ñu war a aborder match bi waaye aussi importance bi nga xam ne war nañu ko mën a yóbbaale ci lu ni mel parce que Aliou Cissé jàpp na ni il faudra batailler pour gagner ce genre de match. Avec ce problème, forcément, le travail mental euh, est, est, est toujours là, mais j'ai envie de, de, dire tout simplement que oui, 2015, aujourd'hui je ne me rappelle pas avoir euh, été tranquille, posé, peinard, tranquille, euh, il n'y a pas de souci. tout ce qu'on a obtenu, c'est on est allé l'arracher, on est allé le chercher, elle nous a été donnée. Nous savons que tout est compliqué, tout est difficile, et ça l'est encore aujourd'hui, et ça le continuera à l'être. Que ce soit moi, de ma part, j'en suis conscient depuis plus de 10 ans, 15 ans. Les garçons aujourd'hui avec qui je suis, conscients que porter Il y a des attentes, effectivement, mais c'est pas pour autant qu'il faut se mettre une, une pression énorme. Moi, je crois que mon, mon équipe vit bien, il y a une solidarité, il y a, il y a, il y a l'envie de réussir les choses ensemble. Comme je l'ai dit, on ne peut pas tout bien faire. Mais depuis 2015 à aujourd'hui, force est de constater qu'on a fait quand même de très, très, très grandes choses. Maintenant, on perd un match, il ne faut pas tout remettre en cause. Euh, mais nous serons, nous serons prêts à la calme. Pourquoi Parce que dans ce groupe-là, Il y a des joueurs expérimentés. Certains vont jouer leur cinquième canne de Coupe du Monde, euh, d'autres vont jouer leur quatrième canne, d'autres vont jouer leur troisième canne. J'ai envie de dire que nous avons l'ADN aussi de la canne, comme certains le disent que le Cameroun là, mais le Sénégal aussi là. Nous avons, nous sommes au rendez-vous des, nous sommes présents au grand rendez-vous aussi. Les grands rendez-vous, le Sénégal n'a jamais, n'a jamais déçu. Quand c'est important, nous avons préparé les matchs. Et c'est ce qu'on a toujours fait depuis pratiquement 9 ans, 10 ans. Quand c'est important, nous les préparons. Et souvent, on a mal, merci ma nekkoon Aliou Cissé doon wax si match bi nga xamante moo ñu xaar ëllëg euh, suñu diggante ak équipe bi nga xamante ne moo di Cameroun coach dañoo gis ne discours Aliou Cissé lu bari def si ñëwaat mooy maanaam le problème euh, ma wax na lu bari li nga xamante moo di mental mais quand c'est important compétition bu important ko Sénégal préparé du am maanaam gars du jox gars li nga xamante moo di maanaam déception Sénégalais yàgg nañ di rêver ay match de préparation ay match ay équipe yu mag joué nañ ak Brésil gagné ko ñu ñëwaat fii stade euh, maanaam maître Abdoulaye Wade ak Algérie Algérie gagné ñu suba ñu war a joué ak équipe bi nga xamante mooy maanaam euh, Cameroun Cameroun mën nañ jàpp ne Pape Djibril Sank mu ngi ko est-ce que tamit deux matchs yu mujjee joué muy 2002 ak 2017 yëpp Cameroun moo ñu moo ñu moo ñu moo d'Afrique suñu kaw 2017 moo ñu par tir est-ce que tamit joueurs du ñëw naka lañ ko mën a aborder est-ce que duñ ko ñëwee maanaam pour esprit revanchard. waaw non non d'abord Cameroun gagné nañ ko mais gagné nañ ko fii Issa Dia. Euh, moo moo dugal bi bi ak. c'est vrai euh, en 2012. voilà dem dem dem dem dëkkam arbitre bi may leen penalty ak yëpp gañe ñoom mënuñu ñu gañe. c'est vrai c'est vrai en 2012 donc donc Cameroun gañe nañ ko mais en phase finale c'est vrai que ne. en phase finale am na kii. mais c'est un match important parce que Sénégal Sénégal Cameroun soo ko waxee c'est deux géants d'Afrique. Mm-hmm. Sénégal Cameroun c'est c'est c'est deux d'Afrique donc euh, match la boo xam ne. ñun dañ ko soxla ñoom aussi dañ ko soxla mais ñun surtout dañ ko soxla parce que par rapport ak match bi ñu joué bi passé on, on prend une défaite chez nous contre l'Algérie donc on a besoin de de de euh, defaraat encore euh, euh, bopp yi defaraat mental bi reprendre confiance donc euh, c'est pour ça que c'est un match important donc je suis sûr que les garçons ils, ils, vont pas le prendre comme li nga wax revanchard mais ils vont le prendre de façon euh, très sérieuse parce que quand même après résultat bi ñu am euh, euh, contre Algérie déjà dans le monde actuel match match amical amatul. donc toutes les compétitions sont sont sont dañ koy jouer pour gagner ko mais euh, surtout quand quand c'est au niveau professionnel où les garçons ils ils que tout compte donc à partir de ce moment euh, moi je pense que ce sera un très bon match où les garçons seront très motivés mais où ils à cœur aussi de gagner le Cameroun pour partir après Euh, à la CAN en toute tranquillité c'est vrai que am na ay match intermédiaire après de de de préparation de coupe du monde mais même match yooyu sax pour nga mun ko préparer en toute confiance munoo jógee ci défaite Algérie après dem pertaat encore contre Cameroun pour pour après enchaîner donc il faut de la confiance football dafa soxla confiance et cette confiance là on l'obtient en en en euh, euh, comme li gars yi di di wax. Euh, c'est dans la victoire qu'on construit donc mmh. il faut Cameroun dañu war a ak moom ëllëg ñu war a jouer ak moom li nga xamante moo di Coupe d'Afrique dans trois mois mhm. est-ce yow ah, yow coach nga mhm. est match suba bi est-ce que ragaloo ni muy di Aliou Cissé wala ki nga xamante moo di Rigobert Song maanaam xaw a làq seen li nga xamante moo di seen ay système ñu xaw am yoo xam ne dañu ko denc di xaar maanaam le le le 18 janvier non ah, xam nga xam nga dans le monde actuel du football kenn mënatul làq dara kenn mënul làq dara mënul làq dara a a tous les moyens il y a tous les moyens pour pour avoir accès à tout ce que fait tout ce que fait euh, euh, l'adversaire donc mënatoo làq dara de et, et puis la compétition léegi léegi nii on joue demain mais on joue après dans mhm. dans trois mois mhm. donc dans trois mois beaucoup de choses peuvent se peuvent passer ce sera pas le même contexte déjà mhm. donc yu bëri après du du du nekk benn donc pour man ça le fait que ñu bokk poule ne change rien du tout par rapport ak euh, ak ni ñu war a aborder aborder match bi je suis sûr que les deux vont jouer ce match là pour le pour le gagner. Mhm. déjà moom fii fii mu amee xaw a am tuuti euh, par rapport fi muy laalee euh, euh, Coupe d'Afrique bi suñu match suñu match contre ñoom peut-être mooy au niveau psychologique parce que. xëy na ki gagné dina am ascendant effectivement ah, waaw sur sur l'autre donc c'est moo tax enjeu yooyu day day day moo tax je pense que ne euh, ce sera un très bon match où les deux équipes vont chercher à gagner et nous a tout intérêt à le après suñu suñu match bi nga xam ne moom la perte fii sur des détails contre l'Algérie Pape Djibril suñu match euh, yàggul suñu match amical bi nga xam ne mën nañu jouer fii ni ñu ko perte contre maanaam Algérie suba ñu war a jouer ak Cameroun dañu war a gagner pour retrouver aussi li nga xamante ma mooy la confiance. oui oui effectivement comme ni mu ko waxee nii parce que tey jii si tu dois jouer avec une équipe contre une équipe dans six dans trois mois je pense que tey jii euh, ki ci def résultat bu positif peut-être mun na am benn genre ascendance. Mm-hmm. soo seetloo temps yi ci réseau yi. Camerounais yi suñu mm-hmm. amee fit di tooñ ñu wax lu ne c'est parce que euh, ces dernières années ñoom ñoo ñu gagné. instant yi ñoom jàpp nañ ne bi ñuy wax naan match bi am na benn réglementation CAF boo xamante ni saa ça interdit sur les réseaux les Camerounais ñu ngi doon wax lu leen neex ah da di ñëw leen ñu dóor leen après su ñëwaat da ngeen di <laughs> donc parce que instant bi euh, et c'est de bonne guerre tamit ku la mm-hmm. jàpp door la année yëpp xam nga voilà quoi dina jàpp ne moo la mën mm-hmm. donc moo tax gëmuma et puis Kalidou Koulibaly même l'a dit en conférence de presse on mm-hmm. à 100 pour cent man gëm naa ne les deux techniciens bon essayer de mettre tous les tous les deux les meilleurs atouts pour gagner sa match. Mm-hmm. parce que loolu et comme Sénégal surtout Sénégal mi nga xamante ne nii dama buggu gars yi fàtte match ci Brésil bi surtout dama bëgg pour ne pas oublier le football africain est trop différent est très différent il y a l'engagement il y su fekkee nag da nga mënoo gagner contre Algérie nga ñëw contre Cameroun nga am difficulté tu dois te remettre en question. Mm-hmm. moo tax ma gëm ne match bi du nekkul match bu ñu war a ñàkk. c'est-à-dire Rigobert Song keroog mu ngi ko doon wax ne y' a pas de match amical bien avant seen conférence de presse mu ne y' a pas de match amical effectivement ce sont des termes des appellations parce que euh, je sais pas FIFA amul beneen appellation bu mu leen di wax ak amical la ñu wax mais ce sont des matchs yoo xamante ni nii dañu am seen importance et puis ça va permettre aux sélectionneurs de tester des des systèmes yoo xamante ni nii peut-être. dina ko mun a exi dina ko mun a utiliser dans des dans des compétitions dans dans lors des compétitions. Euh, dernièrement on ak mais ak nu mu gàttee nii regroupement bi nu mu gàttee nii est-ce que testé yenn yenn système yoo xamante ni mais soo ko deful kañ nga def adapté woo ko avant. soo ko deful kañ nga def. Aliou Cissé créé commencé woon na fi benn système défense à 3. Mhm. gars yi ko mu bàyyi. man je pense que daf ci war a insister. daf ci war a commencer waat parce que des fois nga toll ci situation yoo xam tu en as besoin. Mhm. et ak potentiel am. tu as quatre joueurs trois joueurs yoo xamante ni ils peuvent te constituer benn défense à trois su ko defee sa milieu terrain nga nga nga densifier ko am ñoo xam dañuy jouer piston comme Jean Crépin ak ak Jackson su ko defee di nga am surnombre quand tu sooy attaqué di am tamit surnombre moment des replis défensifs je pense que match la boo xamante ne nii vraiment euh, on va assister à un match très plaisant du nekkul doo gis euh, entraîneurs yi faire du n'importe quoi bu bu m'excuser du terme c'est-à-dire jouer loo ñuy première mi-temps pour jouer non non non rotation yi duñ bëri mm-hmm. dina dinañ ils vont être vraiment très rigoureux dans ce qu'ils dans ce qu'ils font maintenant mm-hmm. euh, l'équipe qui va gagner certainement peut-être mun na commencer am aspiration boo xamante ne ni parce que baromètre la lii ñun Sénégal dafa waroon am ñaari match Euh, de préparation malheureusement on n'a pas pu jouer contre, contre le donc c'est match boo xam ne vraiment c'est très important et puis nit ñaa ñuy xool su fekkee Algérie gagné nañu bërki dem waxuma gagné wuñ de ñu def match nul ak Cameroun rek moi je que c'est pas un bon résultat. Mhm. on doit tout faire pour gagner le le le Cameroun. Grégoire yow sa impression par rapport match ëllëg bi est-ce que ñu war a mën a ñëwee ak li nga xamante moo la esprit revanchard parce que Cameroun suñu deux derniers matchs yi bon la revanche de Guisse la pas pour man parce que esprit boobu boo ko demee rek yaa ngi génn ci contexte match bi euh, certes match amical amul parce que facteurs yi dafa bëri non seulement y a le classement FIFA mais aussi y a que tey on a plus la possibilité d'aller jouer des équipes yoo xam ne dinañ ñu permettre ñu expérimenter d'autres systèmes wala ñu am benn niveau de jeu bi donc tey ak football ni ñu ko tëralee on a plus tey l'occasion d'aller jouer ay équipes yu mel ni ay France wala ay Argentine de gauche à que calendrier foofu ni mu tëddee ça nous donc te au niveau africain bu ñu amee chance jouer tey te grosses écuries yu ci mel ni Cameroun pour man instant bi l' aspect mental bi ñuy wax fii lay door a amee importance am keroog bu ñu Algérie gagné ñu ngi dégg Idrissa Gana Gueye ce qui nous dit moom mooy le Sénégal n'a pas l'habitude de jouer de match là à mmh, maison mmh, mmh, donc euh, bien sûr chose boo xamante ne nii ça montre que euh, sur le plan mental yenn équipe yi dañ ñu xaw a raw te boo xoolee les dernières coupes d' Afrique yi nga xam ne dañ ko ñàkk aussi mental def ci peser tellement le Sénégal en 2007 mille fois supérieur o Cameroun. effectivement quest n'a pas euh, tey réussi au parce que dañu gëmul woon à cent pour cent ne tey mënoon nañ def cette différence donc Cameroun ñëw na ak ay valeur am xam na ne tey bu ma génnee ma football Sénégal dina ma dugal lu bëri. Mhm. donc ils sont venus ñu défendre mais tey dans notre certitude tey ñemewuñu woon tey def tey cette rotation à trois derrière pour aller attaquer en surnombre parce que ñu ngi doon sóoraale tey la vitesse des attaquants camerounais donc noonu li koy def moom mooy une équipe boo xamante ne nii xëy na. ci benn système bi muy demee euh, bu ko génnee rek xëy na day xaw am ay jafe-jafe donc football tey fi ñu toll nii rapport de force la muy commencé tey ci conférence de presse bi discours yi nga xam ne entraîneur yi ñu ngi koy tenir doo ci gis kenn koo xam ne nangu na nekk favori. donc euh, loolu yoonu yëpp day feeñ ba ci terrain bi donc ay naxante la euh, tey match bii nii ku la ci ne tamit amical la amical la justement de non kese foofu la mën a yem mais tey su le terrain mu ci mel ni ay mbomoo. ay Sadio Mané ku ci nekk di nga bëgg a nekk tey la vedette. Mm. di nga bëgg aussi apporter quelque chose pour signaler wu tey marché bi tey enjeu bi mu njëkk am moom mooy bu ñu demee Coupe d'Afrique naka laay nappee sama adversaire tey Sénégal bu jaaree ci kaw Cameroun tey par exemple def ko benn 3 à la Coupe d'Afrique des Nations le Cameroun dina am beneen taxawaay boo xam ne na ko def parce que dina ne lii ak lii ak lii moo manqué donc jàngat boobu lay tiire ci marché bi le Sénégal dina xam tey ci lan la war a jaar pour dem jouer ji le Cameroun aspect bi ci njëkk moom mooy fexe ba avoir les nerfs mais aussi être patient et être tey li nga xamante ne moom mooy euh, assez lucide parce que occasion yi la tam du bëri. Mhm. c'est un gros match on a vu ça contre l'Algérie li ñu sonal moom mooy on n'a pas été efficace. Mhm. te le Cameroun c'est boo xam ne tey mën na jouer nu ko neexee day def bloc ba comme que tey day génn jouer ak explosivité. bëri na facteur mais yaakaar nga ni bu ñu ak euh, maanaam Sénégal ak France yi nga xamante ne Cameroun am na que li nga xamante ne moo di bloc bas. mais on a vu le Cameroun faire ça face à la Namibie pourtant match boobu noonu tey boo koy xool sur le papier da nga naan Cameroun amul droit footballer nii mais ak match bi li muy laaj tey Cameroun am na explosivité boo xam ne bu ko bëggee tey football contre Sénégal du am contrôle bi war ci des joueurs yu ci mel ni Ismaïla Sarr wala Sadio Mané mm. donc il faudra tey attaquer avec intelligence attaquer ak intelligence boobu noonu moom mooy utiliser tey une densité ci li nga xam moom mooy euh, phase arrière bi pour tey pour utiliser ces flèches donc foofu la affaire bi di toll quelque part Sénégal Égypte on a encore même chose Égypte dafa football tous ses matchs à la CAN mais face au Maroc ak Sénégal dafa soppi xar kanam. Hmm. donc parce que foofu noonu xam na ne sama force force adversaire bi la aussi te aussi cette force là bi ma am bu ma ko bëggee utiliser tout le temps mën adversaire mën na ma def mal donc tey fi ñu toll nii li ñuy def moom mooy se rassurer face au Cameroun bañ leen a may tey lenn loo xam ne. nañ ko mën a exploiter Cameroun parce que Cameroun c'est une équipe boo xam ne xëy na mën na nekk nii di lang-lang nii mais dans une compétition c'est une autre équipe boo xamante ne nii xam na naka lay négocier ce genre de match là. Mm-hmm. donc c'est à nous maintenant comme que phase finale mosuñu ko gagner donc il faut que tey ñu montrer que. affaire bi compétition fii lay commencer pour man on a joué le premier match face à l'Algérie donc face au Cameroun il faudra tey montrer que c'était une erreur aussi mettre dans nos têtes que le Sénégal dootul am un marché facile il faudra jouer des équipes comme le Cameroun la Côte d'Ivoire wala boog le Nigéria parce que ce sont les meilleures équipes d'Afrique ce les meilleures équipes euh, d'Afrique coach gis nañ euh, maanaam partie joueurs yi nga xamante ne maanaam wax nañ ci match bi ñoom nañ dañ ko jàpp ne nekkatul li nga xamante mooy match amical dafa mel comme compétition la mais juste que euh, dañu xeex peut être sànq gërëm mu koy wax maanaam classement Euh, euh, match amical amatul de façon euh, lu football football rapport de force la mhm. te rapport de force mooy mooy mooy mooy diw moo mun diw football ak làmb ak judo ak yëpp ñoo yem waaw rapport de force la donc diw saa yu jeexee dañ naan diw moo mun diw mhm. waaw diw moo mun diw donc diw moo mun diw fu mu dugg rek mooy ça veut dire que ne rapport de force dafay dafay am à partir de ce moment donc match amical day nekk nii de non rek mais dans les compétitions Euh, euh, même entre deux équipes de quartier chacun cherche à à gagner et à forcerie quand c'est des équipes nationales qui représentent des des gens qui représentent des pays. Mm-hmm. donc euh, euh, je pense que ne ce sera un match très disputé très très très disputé mais sur le plan mental il faudra aller chercher ce qu'il faut pour. Euh, corriger le match contre Algérie corriger kii mu ngi koy junj sànq. Grec euh, Grec mu ngi koy junj sànq parce que contre l'Algérie on s'est créé énormément d'occasions en première en première période on pouvait tuer le match on pouvait aller même à la mi-temps ak euh, deux trois buts d'écart bien on l'a pa fait et et au retour on prend en deuxième période on prend un but sur balle arrêté donc correction yooyu ngay apporter essayer bi yoon de de rester efficace sur le plan offensif mais aussi de l'être aussi sur le plan défensif et et comme ça gën a dëgëral sa taxawaay gën a am am solidité en ne prenant en ne prenant pas de but reprendre habitude yooyu parce que compétition bi ñu jëm coupe comme coupe yu mel ni coupe d'Afrique mm-hmm. euh, euh, soo amee taxawaay di di di mun a euh, liggéey pour ne pas prend de but je pense que ne da ngay mun a sori sa compétition parce que compétition yu mel noonu ki koy gagné. Mm-hmm. day nekk d'abord une équipe qui, qui, qui, qui bien défendre, qui ne prend pas beaucoup de buts, et après, ensuite, euh, essayer après euh, d'être, d'être efficace devant. Être efficace devant. Mais Grégoire, qui xamante moo di l'UCC, wax na ci retour qui di Nampalis. waaw waaw c'était nag euh, Babou le grand absent ci li nga xam ne moom mooy nos derniers matchs Nampalys Mendy qui avait nag quelques difficultés tey à avoir du temps de jeu en club tey heureusement am na contrat ak Lens loolu nag waral tey mu dellu si waat bay disputer cette Ligue des Champions Nampalys qui effectue son retour Aliou Cissé am na kàddu yu mu ci yëkkati ñu déglu ko. D'abord, je suis content qu'il euh, qu'il qu'il ait retrouvé un, club et de surcroît un club comme comme Lens. Lens, euh, Euh, de football. Euh, c'est une grande histoire entre les Africains et, lance et Lens. Ma pensée va à à Fobouba, à Jules, pour ne citer, que. Donc, euh, et les Africains, ça a toujours été une histoire, euh, De ce quoi, ils retrouvent compétition, ils retrouvent une équipe compétitive, qui joue la Champions League. c'est tout bonus, pour, ma palisse. Donc, malgré qu'il lui manque un petit peu de compétitivité parce qu'il est resté longtemps sans Mais les matchs qu'il a joués, le peu de qu'il a joués, le minutes qu'il a joué, il a été rendez-vous. Et nous, pour la sélection, c'est un garçon clé qui fait partie aujourd'hui des joueurs qui sont champions d'Afrique, sur qui je veux me baser aussi pour euh, constituer une équipe compétitive et une équipe solide. mu dee Aliou Cissé doon wax ci xamante mooy retour maanaam Nampalis euh, Mendy Papa Djibril suñ match contre Algérie Aliou Cissé dafa defoon militaire bi trois personnes mu di Pathé Gana ak nga xam ne moo di Pape Matar Sarr si maanaam regroupement boobu kii di Nampalis n'était pas là te Nampalis bu retrouver nga xamante moo di temps de jeu retrouver li nga xamante mooy sa forme je pense que war na mën a récupérer sa place fii si nga xamante moo di maanaam ci suba Aliou am na problème dina am jàpp nga ne dina am maanaam difficulté pour def son classement non je ne pense pas je ne pense pas que mu am difficulté moi je pense que depuis depuis très longtemps Aliou Cissé a choisi Nampalys comme ki war a nekk devant la défense sentinelle ça fait ça fait très longtemps il a réglé ce parce que il n'avait pas d'autres milieux de terrain yoo xam ne peut-être je ne dirais pas que am nañ capacité mais peut-être profilu Gana moo ci moo ci tane woon mais on a vu Euh, Pape Matar Sarr il est bon. Mm -hmm. il fait de bonnes sorties euh, de même que. Pathé Ciss moi personnellement je serais pas surpris que mu reconduire le trio bo trio boobu. parce que kan kan kan euh, Nampalis Pathé Ciss et. Euh, Pape non pas Gana. Pape Matar Sarr de mm. Gana je ne pense déjà Gana y avait. y avait des incertitudes ci ñëwam parce que dernièrement dafa blessé woon à l'échauffement et tout je sais pas parce que nekk mu nekkuñ fa xamuñ ndax physiquement il est truc mais dernière victoire bi Sénégal am je pense contre le Brésil c'est ce même trio le le le football le football donc je sais pas mais man personnellement euh, je ne pense pas que Aliou am am am problème choix et lépp lu ci munti doon tamit mun nañ jàpp ne c'est ce sera bénéfique c'est-à-dire équipe nationale instant bi ci partie yëpp ce qui n'existait pas ci mais léegi ci compartiment yëpp que ça soit au niveau de la défense de l'antier ba ci kaw les joueurs sont interchangeables ba ci booy Lamine Camara bi mujjee ñëw il a il a son mot à dire donc je pense que c'est pas du nekk ay question euh, problème problème mu nit je pense que problème euh, je sais pas animation la mais pas problème nit ci parce que je pense que ku ci nekk war na mën a remplir contrat bi mm-hmm. est que yaa ngi mm-hmm. mais li ñuy manqué contre Algérie c'était uniquement l'efficacité tey jii comme euh, Malick ni mu ko waxee léegi su fekkoon dugal nañ ay benn wala ñaar premier mi-temps kon débat bi duñ du du posé wu ndax kii il a fait son son match il a on avait vraiment montré de très belles choses c'est uniquement au niveau de la de de la de de, de l'attaque la être que de lañu sentir des des des des des failles Et là, je pense que c'est un travail qu'il faudra régler. C'est un, c'est un travail, un problème qu'il faudra régler parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Mhm. Soo xoolee CAN bi, CAN bi weesu, on a joué trois matchs. benn bii lañ dugal c'est sur penalty mhm. à la quatre-vingt-quatorzième minute. donc c'était assez compliqué. Mhm. c'était très compliqué. peut-être avec euh, match yi ñuy dem après l'équipe est montée en puissance mais je ne pense pas que ñu war a am difficulté pour xool le meilleur. ça xanaa kay Aliou war a xool ban je sais pas système lay football mais je pense que euh, li intéressant surtout mooy on a des joueurs qui jouent en club. Mm-hmm. Mm-hmm. on n'avait pas ça. Mm-hmm. pratiquement non non on n'avait pas ça. pratiquement ils sont tous soo jëlee ligne yëpp ils jouent en club. bi ñu dem coupe du coupe d'Afrique c'était pas le cas bi ñuy dem coupe du monde bi c'était pas le mais là tu as des joueurs qui ki sont. qui jouent qui jouent euh, peut-être à quelques exceptions peut-être gauche. sur le si le plan gauche avec l'arrivée de Balou Touré que euh, peut-être mën nañ mën nañ mettre des points d'interrogation sinon su dul ñoom su dul moom peut-être l'ensemble de l'effectif euh, voilà ils sont compétitifs chaque week-end ils jouent en club donc moi je pense que peut-être s'ils parviennent à gérer l'émotion Euh, on a parlé tout à l'heure de l'aspect mental qui est très important soo xoolee benn équipe mu gagné la ñaari yoon yooyu yëpp xam ne série penalty la peut-être sur le plan psychologique mën nañ ne waxuñ pare woo mais peut-être ñee mën nañ la gën a pare mm-hmm. donc si on est lucide si on joue sur nos vraies valeurs peut-être on peut on peut s'en sortir face au on peut s'en mais je ne pense pas que mu euh, euh, bi nii euh, lan la mën a changer si li nga xamante moo di milieu de bi malgré sa match passé trois yi nga xamante Aliou Cissé def nañ de tegoon na leen mu di participer gànn ak Pape Matar Sarr de remplir nga xamante moo di seen seen mën nañu jox plus d'équilibre mun nañu jox plus d'équilibre parce que euh, euh, ñu gën a am mun a am liberté wu attaquer aussi ñu gën a am liberté wu attaquer parce que xam nga booy sooy sooy sooy sooy sa défense yaa ngi koy defar bi nga xam ne moment bi ngay bi ngay attaquer équilibre boobu foog nga mun ko foog nga mun ko am pour mun a pour mun a aussi li ngay li adversaire bi bañ la ban la gaañ yow soo soo nekkee en phase de non non possession. Mhm. donc mooy si diggante ñaari phase yi mooy li ñuy wax transition yi. Mhm. donc yow da ngay soo yoree bal bi da ngay may attitude offensive donc équipe bi génn. su équipe bi génnee si biir équipe bi lu muy génn war nga am aussi euh, euh, préparer aussi ne euh, no possession mun na am maanaam ballon bi mun naa ko ñàkk et Nampalis si si cadre boobu Nampalis da lay indil équilibre par rapport à ça il fait un travail extraordinaire au milieu c'est pas le joueur buy teg bal bi dënna orienté fii jaar fii gauche yaali kii mais il a il est dans un autre registre boo xam ne Euh, très important il nous apporte de de l'équilibre notamment dans les les couvertures d'espace mm -hmm. dans la récupération donc euh, moi je pense que ne mun nañu indil plus d'équilibre pour que ñu mun a gën a suñu gën a mun a exploiter aussi euh, euh, notamment nos nos arrières latéraux. mais mais si si mili si trois si si les trois militaires si Nampali si Nampali bu ñëwaatee kan nga jàpp ne moom moom Babou Diop dafa jàpp ki nga xam ne mooy Gana peut mm-hmm. moom moo war a maanaam céder sa place. waaw mais mais wax na aussi wax na aussi clé bi mais clé bi mooy que ne tous tous nos joueurs sont compétitifs et am nañ interchangeabilité c'est-à-dire tu peux suñu chance mooy mën nga changer joueurs yi sans pour autant perdre au change. Hmm. sans pour autant perdre en valeur. donc à partir de ce moment je pense que ne euh, seen utilisation day nekk plus problème d'animation maanaam ni entraîneur bi ni muy xalaatee ne euh, équipe bi noonu laa koy aborder donc da koy aborder par rapport ak profil mu. yi mu yi mu. nga xam ne ñoo war a mun a def def loolu mais quel que soit Alpha je pense que ne euh, euh, Nampalys moom xam naa ne. Mhm. en principe il va il sera il sera là-bas. avec qui je ne sais pas mais euh, équilibre boobu moom xam naa ne moom da koy da koy indi loolu moo tax ma xalaat ne moom dina fa nekk et avec avec qui je sais pas parce que de toute façon comme ni ko Jibi waxee ak ku ku mu munti nekk rek. je pense que ne ils ont l'habitude eux déjà maintenant de jouer ensemble c'est un groupe qui assez soudés, qui vivent bien ensemble, donc euh, je pense que ne nous posait problème. Quoi. Je vais rajouter un peu, un peu sur confirmer les mois. C'est-à-dire, euh, Nampalis, il est généreux dans l'effort physique. Mm -hmm. C'est-à-dire, Nampalis, il fait un travail de marquage extraordinaire. De l'autre, tu as besoin de. Surtout si tu veux jouer à, souvent un milieu de terrain composé de trois hommes. Mm -hmm. Tu as besoin vraiment de quelqu'un vraiment qui, qui a un gros moteur, qui fait des va et bien capable d'aller au charbon et, il est comme ça je sais pas ndax yéen a ngi fàttaliku suñu match contre Burkina je sais pas ndax ça de contre Burkina mais si le blessé je pense à la cinquième minute mooy bi mu amee problème ah, bëtam je pense euh, contre Burkina ou bien euh, mais il a été énorme alors que même bi muy ñëw en équipe nationale période boobu il jouait pas en club cest une valeur sûre Nampalys raison pour laquelle Aliou il ne cesse de dire Nampalis Aliou tel que mettre dans le bain parce que le fait que mu raté benn match. Mhm. après mu ñëwaat teg ko ci banc bi ça peut peut-être mais jouer un peu sur je sais pas si si moral bi et tout. Mhm. mais du il compte véritablement sur lui waxaat na ko tey sax waxaat na ko tey je je compte véritablement sur sur sur sur ce gosse donc ce sera l'occasion vraiment de le de le lancer pour que mu retrouver ay sensations voilà pour que les prochaines échéances en novembre. mu gën a exploser pour aller en au camp euh, en Côte d'Ivoire avec euh, sa meilleure forme. Grégoire pour yow Nampalys il sera avec qui. bon avec qui problème animation la parce que Aliou moom moo xam xëy na li mu fay fekk ak li mu bëgg a mais dire que Nampalys moom moo ñu tax a tey gis un Idrissa Gana Gueye boo xam ne mosuñu ko woon a gis ci position bi mu nekkoon ci Coupe d'Afrique bi ñu weesu. donc euh, tey ak Nampalys am na ñu tey possibilité am benn sentinelle di relancer moom. am nañu tam possibilité jouer ak ñaar donc euh, assurance tout bi muy indi moom mooy tey Sénégal am na fitu teg bal bi jouer jaar ci milieu terrain bi amatuñu tey li nga xam ne moom mooy di jouer souvent sur de longue balle yoo xam ne ay transversal lay doon di dem jouer ji ay deuxième ballon ak équipe yi nga xam joueurs yi nga xam moom la ñu am ci kaw donc tey dans cet entrejeu là Nampalys mi ñu may moom mooy équilibre équilibre moom mooy lan tey le Sénégal est capable d'aller tey presser ba ci tey li nga xam moom mooy la zone adverse tout en utilisant li nga xam moom mooy ces ces ces milieux terrain là. Mm. donc aussi bu fekkente ni ñun ñoo nekk en phase défensive am na ñu possibilité avancer loo suñu bloc mu récupérer balle bi proposer des solutions tey euh, muy moom. muy Pathé Ciss wala ak Gana mën nga tey trouver tey un milieu terrain boo xam ne moom ak Idrissa Gana Gueye mën nga retrouver ci biir tout mhm. dépend tey ci li nga xam moom la Aliou bëgg a proposer mhm. donc soit Pape Matar Sarr lay nekk seen kanam wala boog Pathé Ciss lay utiliser wala boog Iliman Ndiaye wala keneen ak keneen ça dépend tey ci li nga xamante ne moom la Aliou bëgg proposer mhm. donc juste dire que euh, c'est très bien de le retrouver parce que ñu ngi Euh, entre bi ñu ko gañee ak bi ñu war a joué juwaat aussi temps bi bëriwul te mhm. on n'a pas aussi tey assez de temps pour concocter une nouvelle équipe boo xam ne tey dinañu yóbbu donc li ñuy def moom mooy xëy na yokk wala boog ñu réajuster quelque chose yoo xam ne nii demul donc tey c'est très bien ñu ciy dem en tant que tey onze boo xamante ne ni boo xoolee tey euh, quatre-vingt-dix pour cent ci équipe yëpp sont des joueurs titulaires dans leur club c'est bien de d'aller en compétition avec yoo xam ne ils jouent te aussi ils sont très en forme donc euh, tey chance bi nga xam ne tey Sénégal am na ko moom mooy ñu ngi dem avec un groupe boo xamante ne joué na compétition bii nii jusqu'au bu gagné na sa trophée là et mu ngi repartir aussi avec ce même groupe là moo xam gardien la ba ci kaw kenn ki ci yokk du keneen ku dul Crépin Diatta te moom blessure moom moo taxoon mu manqué cette compétition là donc dire que Aliou tey fi mu nekk nii ay dernier réglage courte lay def donc retrouver Nampalys Mendy dans pour man ça revient au même donc c'est un plus boo xamante ne tey mun ñu koy apporter la chance que le Sénégal a moom mooy retrouver na tey ay cadres am mhm. des cadres yoo xamante ne nii am nañu temps de jeu ils ont de la confiance ñoom ñu ngi def ay résultats juste que ay xale lañ ci yokk mhm. te loolu mooy groupe équilibre bi ñu doon wër am nañu ko fi ñu toll nii donc le moom mooy doxal le reste mooy doxal mais ba tey ki ñu waxtaanee mu di Nampalis tamit Grégoire wax na ñu war ci li nga xamante moo nekk ci wàllum concurrence bi nga xamante moom ci milieu de terrain bi. waaw moom ne nag talent ñàkkul li ci des rek moom mooy ñu xam ne concurrence c'est une chose boo xamante ni rek dafay gën a galvaniser groupe. ouais c'est une concurrence et euh, c'est ce qu'il faut c'est ce qui fait perdurer euh, les bons résultats ce qui fait perdurer aussi euh, l'ambition de de de l'équipe nationale du Sénégal et aussi comme euh, je l'ai dit euh, cet après-midi c'est une bénédiction pour des joueurs à tous les postes, des, des très bons talents. Donc euh, on a de la chance d'avoir des talents à tous les postes et, et c'est bien comme ça. muy wax li nga xamante moo di ci concurrence mais ko gisoon ne su surprise sax ñu nga xam wax ma Nampalys di wax Pathé Ciss di wax Pape Matar Sarr est que surprise mënu am bu ñu gisee prestation bi nga xamante ne Lamine Camara mujj na ko def pour football maanaam euh, maanaam stade Abdoulaye Wade. waaw tout dépend de de ce que euh, xam nga mooy li ñuy wax léegi rek suñu chance mooy. léegi euh, Nampalys mu ngi koy waxaat léegi. mooy am nañ am nañ euh, à tous les niveaux des des des joueurs compétitifs et qui ont euh, un excellent qui ont un excellent donc à partir de ce moment je pense que chacun a la chance de de jouer c'est ça l'équipe nationale chacun a la a chance de de pouvoir de pouvoir jouer. on a des des des des des joueurs comme sànq li ko Djibril waxee yoo xam ne. Euh, am nañ assez expérience maintenant euh, euh, un vrai vécu en Afrique am nañ aussi de jeunes joueurs qui qui qui qui arrivent et pareil qui ont un talent et un potentiel Pape Matar mm. Lamine Camara tous ces jeunes joueurs sont ont un potentiel extraordinaire donc je pense que ne mélange boobu mun na mun na def ñu am am li nga xam ne mun nañ ko mun nañ ci sukkandiku pour après am résultat yi ñu pour pour résultat yi mun a mun a continuer di euh, di di di mel ni mu ni mu mel nii pour ñun. Mm-hmm. mais euh, c' est c' bien possible c' est bien possible tout dépendra sa wax nañ ko sànq par rapport ak Aliou li mu bugg li mu bugg a def. Mm-hmm. Euh, ak moom ak mentalité am fu mu nekk il peut vouloir xool Lamine Camara comment il réagit face à un Afrique comme mun na ko aussi bañ bañ a griller bàyyi ko ndànk-ndànk di ko di ko di ko dugal de façon progressive mm-hmm. tout est possible mm-hmm. tout est possible parce que les deux sont possibles xam nga entraîneur mun na ne ah xale bi kat euh, contre Algérie def na lii gars yi ngi wax nii gars yi nii gis naa ne en euh, club il fait ça donc bàyyi ma xool dans un autre contexte naka lay réagir mm-hmm. donc à part xam nga mën na ko indi parce que euh, match yi nii nga mun a li ñu koy wax sànq que ça soit dans les animations de jeu comme ça ça dans les nga mun a profité pour pour xool Euh, euh, li nga bëgg a xool parce que après quand c'est c'est c'est un match de coupe du monde ou quand c'est un match de coupe d'Afrique euh, loolu da ngay dem ak ay certitude mm-hmm. donc à partir de ce moment mm, li nga wax noonu mun na c'est bien possible c'est bien possible Pape Djibril par dama ñëw par rapport ak li nga xamante moo di maanaam si laaf bi match yu passé moo di Sabaly dafa blessé cette fois ci sax ñëwul ñu mais coach dafa indiqué ne ku bees mu di Sané nekkoon ak maanaam équipe nationale locale bi léegi sax mu ngi ma mu ngi joué Chypre Aristide Limassol muy côté bi nga xamante moo di côté euh, Lafia bi mais fekk na fi ki nga xamante moo tamit moo di Formose foofu tamit est-ce que tamit euh, lan la ñu mën a apporter mooy li nga xamante mooy euh, war a mën a def foofu tamit aussi bon ça aussi c'est c'est c'est tey maa ngi def benn genre comme a l'habitude de le de le faire euh, composition probable à chaque fois on propose bi ma fa yeggee xaw naa am tuuti difficulté mais j'ai beaucoup plus pensé à Crépin Diatta parce que je sais pas ndax fàttaliku ngeen match bi passé bi Sabali blessé il a joué Crépin. Mm -hmm. Crépin depuis quelque temps c'est-à-dire gars yi dañuy kaas naan Crépin. mais ñu naan Crépin mais match boobu aussi maanaam repli bi dafa xaw a yéex tuuti. moo tax mais mais gis nga football moderne fu ñu toll nii ah euh, c'est-à-dire réadaptation moo si di am c'est-à-dire euh, parle de professionnalisme ça c'est vrai que góor moom ne ko da ngay fubali attaque de xaw compliqué <laughs> mais on a ce qu'on a constaté mooy on voit souvent benn milieu terrain nga xam ne ay techniciens lañ sax ñu reconvertir nekk ay libéraux wala genre Crépin Diatta dans le passé joué na comme piston équipe nationale Sénégal match Monaco bi nga xamante ni kenn seen dernier match bi Jacobs dugal il a joué parce que Monaco il joue avec trois défenseurs mm-hmm. ak cinq milieux terrain donc euh, il attaque cest su ñuy attaqué Euh, crépin comme genre euh, milieu excentré lay dem mais quand il s'agit de défendre Crépin va se retrouver en position arrière arrière droit. Mhm. moi je serais pas surpris sérieusement je serais pas surpris que Crépin démarre match bi. mais dara waroo mu am li nga xamante mooy réflexe réflexe défense yi nga xamante war na mën am. mais non non mais non mais non. dina am dina euh, nekk nekk un joueur offensif mais pour défendre avec yenn joueurs yoo xamante ay Vincent Aboubakar et autres ay Mbomo. mais su fekkee Aliou dafa dafa am dafa am intention peut-être contre Algérie on a démarré ak trois défenseurs. Mhm. est-ce que xam ngeen on a démarré ak. si trois si. défenseurs. dañ ko yéegaloon ci. kaw mokk yi. Mhm. Mhm. cest à chose la bëggoon ju la la joué loo ak Crépin donc Crépin moom profil boobu jeune pense pas que ne Noa am na ko euh, Formose n'est pas là je pense pas que euh, bon. Sané Mamadou Sané Mamadou Sané connaissant Aliou. du la woo rek nga nekk peut-être novice nii rek. mu sànni la mu sànni la comme moo tax tout à l'heure quand tu as Euh, Lamine Camara je serais très surpris su ma gisee Lamine Camara Aliou Cissé démarré loo ko. Hmm. Aliou il a l'habitude de laisser les joueurs grandir mûrir xama imprégné wu ci groupe bi des fois mu lay mu ay soixantième minute mu battu bi dese trente minutes il te lance et puis voilà ngay dem tu gagnes en maturité et en confiance je serais vraiment très surpris. Ismaïla Sarr il a vécu comme ça ba ba muy dem ba yenn Pape Matar Sarr même chose hmm. je serais pas surpris alors Aliou ñëw. sànni ko daal la non non mais pour pour suba mm, gars yi buñ buñ bu mu leen jaaxal su Aliou footballé ak trois défenseurs ba pare. jël Jacobs ak Ismaïla Sarr ak Crépin Diatta excusez-moi joué la comme piston. Mm-hmm. peut-être densifier son son mm-hmm. son entre-jeu et permettre le surmon le surnombre lors des transitions offensives comme défensives. comme défensif Grégoire yow qu'est-ce que tu attends demain euh, maanaam peut-être euh, kii nga wax peut-être surprise mën na am mu da mhm. mhm. ah, xam nga tey football da li li tax mu gën a graaw moom mooy dafa dafa évoluer Crépin Diatta bi nga koy seetaan petite catégorie ak léegi ça fait donc beaucoup de choses changé Crépin l'a vu presque évoluer ci compartiment jeu bi yëpp donc tey quand on le retrouve jouer tey ci li nga xam moom mooy am poste de piston donc cela dit que tey il a il a beaucoup évolué mais aussi que euh, le football changé na lu bëri ci Sénégal bu njëkk suñu 4 4 deux la ñu xamoon léegi dem nañ ba essayer ay 4-2-3 4-1 4-1 donc ça veut dire que ñun on s'adapte te euh, voir Crépin Diatta aussi démarrer pour man du du ma jaaxal comme Djibril parce que li tax moom mooy on aura besoin tey de cette mobilité mais aussi de cette vitesse là. Mhm. on joue tey façon bloc boo xamante ne ni jeu dafa varié donc la Cameroun peut être statique comme le Cameroun peut jouer en sautant les lignes donc c' un paramètre boo xam ne il faudra prendre ça en compte et dire que tey Aliou aussi dans ses certitudes euh, yaa ngi wax Mamadou Sane di wax euh, Lamine Camara mais dire que aussi noonu. Euh, pour man Lamine Camara mënaguñ ko jugé tey ginnaaw performance bi nga xam ne def na ko c'est un joueur qui venait d'arriver en sélection euh, premier match am la woon envie bi nga xam ne am na ko mën na justifier tey sa performance mais aussi il faudra le voir dans la durée et comment il se comporte dans ce groupe là donc c'est un joueur qui vient d'arriver il apprend la vie de groupe il apprend tey à à à tey ak ñi nga xamante ñoom ñooy joueurs yi nga xam ne ñoom ñooy yàgg dans cette sélection tey Et s'il venait à être on vous convoqué pour cette Coupe d'Afrique-là, euh, il faut savoir que ça, ça, ça, sa première canne. Mm -hmm. Donc, joueur Bohametam, Dafay Damat découvrir. Là, il est de découvrir la sélection. Ce sera aussi le cas pour Mamadou Sane. Donc, euh, les voir taille, euh, démarrer dans un match Bohamne, c'est un match qui, qui ressemble taille, à une finale de Coupe d'Afrique des Nations pour Man. Euh, nat mënaguñ leen natt foofu noonu mm-hmm. mais pour revenir à Crépin Diatta dire que tey euh, c'est possible ñu jouer dans un système à 3 mais man je pense que Aliou pour donc euh, euh, continuer dans ce qu'il faisait et euh, être dans la logique de la Coupe d'Afrique des Nations il va rester sur sa défense à 4 pour te euh, revoir tey ses plans mais aussi surtout gën a huiler tey li nga xam moom lay def parce que aussi il faut savoir que on y va tey avec une nouvelle charnière charnière centrale peut-être ak Niakhaté. Mm-hmm. parce que aussi pour man c'est c'est c'est le joueur qui s'impose depuis de temps et et que Aliou il va pas donc je me dis tey euh, peut-être euh, Crépin Diatta moom la ñu gis en tan que arrière parce que aussi pour man c'est la seule certitude bi nga xam moom la ñu am instant bi dans dans ce couloir là parce que le reste aussi ay joueurs la miin boobu noonu sa tey difficultés yi nga xam moom la am dans ce couloir là. Mm-hmm. dëgg rek léegi dañuy dem sekki fekki ki nga xamante moo di maanaam euh, ajaabi tey ndaxte jël na réaction ki nga xamante moo di Kalidou Koulibaly wax li nga xamante war nañ ko mën a am soppi ci seen jeu. juste les détails yi nga xam ne ñoo ñu manqué woon contre Algérie ñu déglu Kalidou. que que le football a créé aujourd'hui on va pas on inventer le football c'est des stratégies qui donnent beaucoup de fruits. C'est vrai que on a failli sur ce match contre l'Algérie sur un détail. Le match le football c'est des détails quand tu fais une erreur t'es t'es sanctionné on a été sanctionné, mais je pense que ça a aussi donné des, des fruits positifs sur euh, tout ce qu'on a fait depuis très longtemps. Il ne faut pas remettre ça en question, il faut seulement remettre en, en question le fait qu'on doit mieux communiquer, mieux le, le, travailler. Après, le coach nous a parlé de ça aussi. Il était conscient de, de ce problème-là depuis très longtemps. Il nous en avait parlé avant le match, donc c'était pas nouveau pour nous. C'est dommage qu'on a, qu'on a fait cette erreur-là sur ce match-là. Maintenant, on essaie de rectifier toutes les erreurs qu'on a fait par le passé. et on espère ne, ne plus en faire. Mais voilà, c'est en travaillant qu'on qu'on va qu'on va réussir à, être parfait. Mais la perfection, c'est très difficile de l'atteindre. On essaie de la toucher, mais c'est très difficile. On continue à travailler pour pouvoir être euh, performant et prendre moins de buts. Et moi, c'est mon objectif principal prendre moins de buts euh, possible avec le Sénégal pour pouvoir reprendre, retrouver cette solidité qu'on a qu'on a perdue, je pense, cette dernière année. On va tout faire pour le faire demain et à l'aube de, de la canne aussi et à la canne. mu nekkoon le capitaine des Lions di Kalidou Koulibaly mais itam bu mu noppee ki nga xamante moo di Edouard Mendy grec moom itam yéen yàbb ci li nga xam ne match moo ñu xaar suba. li nga xam ne rek moom lañ doon waxtaane sànq moom mooy l'aspect mental Edouard Mendy jàpp na nag ginnaaw Algérie tey jouer ak Cameroun warul représenter li nga xam ne moom mooy stress ci Sénégal yi. Non, c'est pas, il n'y a pas de, il a pas de stress à avoir. Euh, aujourd'hui, on prépare une grande compétition, compétition que tout footballeur euh, voudrait faire pour représenter son pays. Donc, il euh, n'y a pas de, il a pas de stress. Il y, y a, bien sûr, il y a, y a, de l'attente. Il faut qu'on réponde à cette attente, mais il euh, n'y a pas de, il a pas de stress à avoir. C'est toujours euh, c'est toujours euh, plaisant d'affronter les, les, meilleures nations. Le Cameroun, comme je l'ai dit, en fait partie. Donc euh, on va préparer ce match-là avec le plus grand sérieux possible et euh, rendre fiers euh, les gens qui vont se déplacer à Lens pour le match. coach gars yi gars yi dañu jël comme les Sénégalais parce que boo xoolee ñi nga xamante mooy si réseaux sociaux yi Camerounais yi dafa mel ni ñoom ñu gën a sax jouer match bi nga xamante mooy moo ñu moo war a xaar suba. waaw mooy li ñu doon wax sànq rek quand ah, on est champion d'Afrique tout le monde a tout se faire champion d'Afrique donc c'est normal que muy Cameroun boo joué woon a Côte d'Ivoire ce serait la même chose y aurait le le même engouement mais euh, pour ñun c'est c'est c'est plus euh, euh, euh, se préparer corriger les erreurs de de l'Algérie se préparer se donner de la confiance pour aborder après euh, les matchs de de de la Coupe du Monde qui reste aussi un objectif ak ak Coupe d'Afrique bi dans les meilleures conditions possibles donc pour ñun loolu la pour ñun l'objectif c'est c'est c'est de de de se reprendre euh, euh, oublier essayer d'oublier euh, tirer les enseignements du match euh, contre l'Algérie après ensuite euh, progresser pour après attaquer yi compétition yi ñuy yi di ñëw notamment la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique mais pour Camerounais yi ñoom ça va leur servir aussi de préparer leur Coupe d'Afrique de se mesurer à en gros morceau. xool ñoom fu ñu toll aussi mais euh, mais surtout e-, essayer de de de de battre le champion le, le champion d'Afrique parce que pour ñoom aussi euh, sur le plan mental si si s'ils arrivent à partir à la CAN euh, avec euh, une victoire sur le champion d'Afrique je pense que ne mën na aussi source de motivation pour ñoom donc enjeu yi dafa nekk euh, dans les deux sens mais am na am na tamit la ñu bari di maanaam di craindre mooy par rapport suñu joueurs yi nga xamante ne majeure partie bi parce que mën nañu jàpp ne noyau bi nekkatuñ fi nga xamante moo di Europe ñoom ñu ngi presque ñu ngi ne mm-hmm. est ce am maanaam Asie non non parce que le fait le fait euh, euh le championnat saoudien c'est vrai que Euh, euh, il y dix ans en arrière c'était pas c'était pas c'était pas euh, nekkul woon ci benn niveau bi mais là je pense que ne le niveau commence à à augmenter et et jour day jógee deuxième division en France wala dans un club européen ou national un même ñëw di jouer Coupe d'Afrique di rey boppam donc di am ak di am niveau de performance bu kawee donc je pense pas que ne joueur bu jógee national en France mun na gën a nekk en en en en forme que que que joueur buy jouer euh, dans le championnat saoudien di jouer ay ligue asiatique des des des des des clubs champions di jouer donc plusieurs kii non non je pense pas que loolu nekk euh, loolu nekk problème difficulté euh, Bounja Euh, il a il a c'est lui qui a presque. marqué la waaw non mmh. tout le monde sax mais du Sénégal kese sax ak yeneen adversaire Algérie avant. donc il a fait une grosse CAN l'Algérie est mhm. au Qatar. et en, Arabie Saoudite. Mhm. Euh, il y en quatre ou cinq mais ils sont venus mais terewul ne ils ont fini champion d'Afrique. Mhm. donc je pense pas que ne loolu loolu posé na problème ku xam Sadio xam Koulibaly euh, euh, seen hygiène de vie seen ak ak ak seen. Euh, degré de de euh, comment dire voilà voilà seen euh, seen amour pour. la patrie pour pour pour l'équipe nationale. je pense pas que mu pose problème Cristiano Ronaldo joue bien en Arabie Saoudite comme lui il a quatre cinq ans de plus que Sadio. et terewul ne bii passé il a il a un doublé quand même. par rapport ak sunu sunu joueurs yi en Arabie Saoudite. non pourtant non non du tout du tout déjà de xamal lan moo boo ci joueur c'est-à-dire nga retrouver retrouver la compétition soo xoolee suñu joueurs yi nga xam mais retrouver compétition baax na mais peut-être ak niveau bi. mais mais mais d'accord. c'est ça mais je pense que retrouver compétition moo gën toog ci banc quand même. Mm-hmm. loolu il faut ñu nekk ci d'accord. Edouard Mendy yow leneen su ko woon nekk Arabie Saoudite euh, Chelsea il n'allait plus jouer. Mm-hmm. bokkutul woon sax si plan yi. Sadio Mané entêté wu na def na lii xam nga dem na ci prep mais bokkatul woon ci plan club allemand bi. Hmm. Kalidou Koulibaly il a nee na su fekkoon ne am na retour yoo yu yu yu positif ci ci Chelsea peut-être do doon na toog mais gars yi assuré wuñ ko ci lenn au moment de partir donc hmm. cela veut su toogoon Chelsea mënoon na di am ay bout de match hmm. alors que là. il s'épanouit chaque jour mu ngi joué dernièrement il a été élu l'homme du match mm-hmm. Sadio Mané il est en de marquer des buts je pense qu'il est à à six buts mm-hmm. Edouard il est en de c'est vrai que début saison bi xawul woon baax mais il est en train de retrouver ses sensations bërki mm-hmm. démb le derby de Jeddah contre Hatikva c'est grâce à lui grâce à lui moo tax euh, son son club euh, ñoom nag seen al yi moo lay al al al al Hilal non al Hilal. mooy al Ahli al Hilal mooy Kalidou Koulibaly. Ah. al Ahli moom mooy Edouard Mendy. Ah. looloo tax moom mun na je peux dire que c' grâce à lui moo tax ñu gagné. la preuve après match bi les gens l'ont soulevé l'ont moi je pense que c' est pas un problème de et puis Égypte bi finaalu ak ñun daaw. Égypte la majeure partie de ces joueurs. ñu ngi ñu ngi ñu ngi championnat égyptien bi donc je pense que c'est la compétition qui est importante ñu voit on voit que euh, le joueur chaque week-end wala mu ngi jouer hmm. alors que ñoom déjà Kalidou Koulibaly comme Sadio Mané ñu ngi jouer ci championnat et ñu ngi jouer même temps ci ligue bi euh, moins genre des champions européens hmm. et puis ñi toog naan je sais pas ndax yéen a ngi su parce que ñu bëri dañuy toog naan championnat saoudien bi dañuy dégg mais les gens ne prennent pas le temps de toog seetaan match yi quoi match yu neex na des matchs très avec des vraiment des défis matchs très engagés beaucoup d'envie beaucoup... match engagement la peut-être euh, équipe yi nga xamante ne peut-être am na ay joueurs pro yu jógee Europe ñëw fi nga xamante ne mooy président club partout mais club yi nga xamante ñoo nekk ci suuf c'est dañuy xaw dañoo xaw un à part à part nga xamante ne ndaare bi voilà ñi nekk position relégable mu lañ sonal premier bi mm-hmm. tous les oh. ñoo yem France da ngay dem cinq six club ñoo koy ñooy nekk ci kaw oh. à part derby yi noonu lay deme tu pars en Allemagne ñu ngi fa daan dégg nga fay dégg mm-hmm. Bayern Dortmund Leipzig ces dernières années. ñoo fay nekk di rayante. soo demee Turquie même chose Galatasaray. Besiktas jeex na c'est c'est ça. Premier League ngay dem ndaare bi ba premier bi mën a rayante donc maintenant su fekkee da nga dem Saudi Pro League boo xamante ne ni il commence déjà à vestir mun naa ñëw année bi lañ commencé éjecter assez d'argent des des centaines de. te nee nañ pareekuñ donc si tu vois que y au moins quatre à cinq équipes yoo xamante ne ni y a des stars comme y a des comme Benzema comme Ronaldo bi nga xamante barki démb il a fait un gros match en Portugal avec un doublé mhm. donc man vraiment je suis je, des dafa may poser problème quand je vois des gens mais nag xam nga nit ñi ñoom des fois ils ont l'habitude de se fondre dans la masse dañuy dégg baabu toog quelque part ne ki amut niveau rek mhm. yow tu n'as jamais suivi le match mm -hmm. le championnat ne t'intéresse même pas xamoo club yi ñan ñoo fa nekk da ngay toog tamit waxtaan rek nga ne non championnat bi championnat saoudien c'est vrai que mënuñ ko comparer ak Premier mm. mais c'est de bonnes équipes gars yaa ngi football te ñoom soo xoolee ay UEFA ñoom suñ demee ay prononcé wu ci Saudi Pro League c'est parce qu'ils se sentent un peu menacés mm. keroog maa ngi dégg ñu ne ñuy wax naan dañu war a réglementer euh, ni ñuy defee mercato heure bu tra c'est parce qu'ils se sentent menacés ils se sentent moi je pense que je pense que euh, du moment que euh, les Kalidou Koulibaly le Edouard Mendy les Sadio Mané Habib Diallo chaque jour ñu ngi retrouver temps de ñu ngi football mais euh, euh, l'autre là suñu défenseur bi ki dem Qatar Abdou Diallo. Abdou Diallo su toogoon Paris day football du football. Hmm. amul club. Hmm. je pense que ils ont fait des choix des choix forts au début les gens n'avaient pas compris mais soo suivre tu vois ne. Euh, ils sont en train vraiment de s'épanouir et c'est ça le sport. c'est ça le sport effectivement Grégoire dañuy dem seeti kii d'abord euh, balaa ñuy ñëwaat ci waxtaan bi mooy Rigobert Song wax na ci nga xam match bi sunu diggante euh, Cameroun Sénégal Cameroun suba. waaw moom jàpp na nag ne baabu jamono ji rek c'est la Coupe d'Afrique des Nations qui commence aussi son groupe a besoin de ce genre de match. qui concerne le match de demain je pense pas qu'il y a une tension parce que je dis en tant que compétiteur pense que nous sommes. Euh, on ne savait pas que ça allait arriver là, mais on va faire avec parce que je dis, ça va permettre à mes joueurs d'avoir euh, déjà, d'entrer déjà dans l'esprit de la compétition. Et je pense qu'en tant que compétiteur, mes joueurs, ils sont prêts et j'aimerais jouer ce genre de, de match qui va leur permettre, eux, de démontrer de quoi ils sont capables et de voir déjà ce qui va être, euh, euh, qui se présente lors de cette compétition. Donc, je pense pas que c'est un match euh, qui a de la euh, C'est un match qui est bienvenu. Et donc, euh, voilà, nous sommes préparés à ça et je pense que mes joueurs sont prêts demain. suba di jàpp ne moom match yi dafa baaxul baax na su trop muy jouer ak li nga xamante moo ñu les grandes équipes pour waajal lii di coupe d' bi Grégoire ba tey damay euh, des ak yow. Grég yow ban commentaire ngay am ci discussion yi nga xamante ni coach mu ngay wax ak Djibril Gaye par rapport ak maanaam suñu joueurs yi nekk à l'étranger ñi nekk Arabie Saoudite. bon man je fais partie tey baabu des des journalistes nga xam ne euh, bi bi suñu suñu joueur di signé amoon naa tey quelques inquiétudes par rapport au niveau physique bi nga xa ne war nañu ko mën a proposer. tey euh, je posé la question à beaucoup de spécialistes dem nañ sax ba naan ñu xëy na amaana tey euh, bu ñu amee benn déficit physique mënoon nañ am une préparation spéciale loolu noonu yëpp c'était pas à ñu ngi ko doon waxtaane mais bi ma seetaane tey cette Saudi Pro League là gis des joueurs yoo xam ne tey ñoom ñoo nekkoon di toj en Europe mën naa jël exemple Kessié mën naa jël Firmino tey ak euh, Riyad Mahrez ils n'ont perdu tey de leur talent ils n'ont rien perdu de leur Eh, mën naa ne tey eh, Saudi Pro League boobu may wax moom moo gën a physique tey le championnat de France parce que ça court de partout de la première à la quatre-vingt-dixième minute te li ñu nekkoon ci coupe du monde aussi sa contexte là changé ñu ngi joué ba ci treize minutes temps additionnel ce qui veut dire que ñoom dañuy joué un match une prolongation ba tey ce qui fait que euh, niveau physique bi nos joueurs ils sont xëy na tey li ñu bëgg mënuñ ko gis léegi nii parce que aussi ligue bi dafay door jóg mu ngi door a am tey attractivité bi nga xam ne tey moom la soxla woon Premier League dañu habitué woon amuñu habitude di seetaan tey ce championnat saoudien loolu moo waral tey xëy na quelque part ñuy toog di am ay si on n'a pas tey assez d'informations yi nga xam ne noonu la ñuy suivre tey ces la loolu moo waral tey sénégalais yi ku ci nekk di wax mais aussi il faut savoir que tey technicien bi bokkul tey ak observateur bi toog ci këram wala tey ak nga xam moom moo toog ci grand place bi seetaan football tey. dafa bëri ay paramètres bëri tey ay niveau yoo xam ne war nañ ko ci mën a situer aussi pour juger un joueur mhm. tey ces joueurs là bu fekkonte ne am nañ un problème physique doo leen gis te nag pour man tey xëy na polémique bi li ko xaw a yokk moom mooy tey euh, l'énervement bi nga xam ne gis nañ ko tey ci Sadio Mané keroog bu ñuy joué contre Algérie bokk na tey ci li nga xamante ne nit ñi ñu ngi doon wax dafa sonn mais il faut savoir que aussi un joueur boo xam ne mu ngi football tey durant quatre-vingt minutes c'est boo xam ne physiquement il est prêt donc euh, cette Saudi Pro League là ne pose aucun souci tey au euh, les Lions. l'autre bi ma bëgg a xëy na moom mooy problème bi stress bi Edouard Mendy di wax dire que si ce stress la c'est à nous d'abord de nous euh, à lui parce que aussi. ça fait mais il parle des Sénégalais ah. les Sénégalais war nañu stressé wu. mais pour Sénégalais yi bañ a stressé wu c'est cest à que il faut que aussi euh, Babou dans le jeu. le premier acteur à rassurer tey jii moom mooy ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk. exactement parce que aussi euh, la patience ak le mentale bi ñuy wax foofu la mën a commencer tey un gardien de but dafay gagner un match on l'a vu à maintes reprises dans une coupe d'Afrique Edouard Mendy bi nga xam ne moom moo génne la seule parade ci biir prolongation bi tey on a besoin de ce Edouard Mendy là durant quatre-vingt-dix minutes gisuñu Égypte benn yoon lañ explose il a fait la parade qu'il fallait donc dire que tey. moo xam son jeu au la wala boog dans ses sorties aériennes euh, pour sénégalais yi bañ a stressé foofu la commencé tey bu ñu nee bay installer une polémique par rapport à Mori Diaw dafa war a ñëw wala Seny dafa war a góol c'est parce que tey quelque part euh, il a perdu tey cette assurance bi nga xamante ne moom moo waral tey jii ñu ñu toog di poser wu ces questions là mais aussi il faut savoir que c'est grand gardien boo xam ne il est passé par des moments assez difficiles tey dernièrement ci carrière am moo waral xëy na tey ces statistiques di génn ci loolu noonu mais ñun par rapport son talent on a aucun doute dire nag fi fi ñu toll ni football dafa bëri ay exigence exigence football moom mooy il faut toujours être au top sa forme di di di di di di moytu erreur yi te donc tey fi ñu toll nii moom mooy Sénégal comme que dañu ko xaar aussi on attend on attend ça de ces la là tey Edouard Mendy la ñuy wax André Onana mu ngi nii. moi mm-hmm. aussi fait partie des gardiens yi nga xam ne tellement décrié mais pourtant c' est le meilleur en Afrique par rapport à son jeu au pied. Mm-hmm. mais ñu ci bëri ñu ngi koy waxal loo xamante ne nii. Euh, dafay feeñ ci match yi te aussi ni club am nekkee facilité wul la tâche. Mhm. donc euh, tey y' a beaucoup yoo xamante ni tey il faut que euh, un joueur ci ci li nga xam ne moom moom lay évoluer loolu noonu avantage wu ko mais aussi pour ce stress là moom pour man ci ñoom la njëkkee quoi. ñoom la ñuy wàññi stress boobu noonu. pour le dernier tour de table ba Papa Djibril yow la nga bëgg a yokk ci ki nga xamante moo di Edouard Mendy. c'est-à-dire bon euh, moi je ne le défends pas c'est vrai que ses performances n'ont pas été énormes depuis quelque temps mais euh, il faut des fois tamit waxuma indulgence mais ñu xool yenn paramètres Edouard dafa toog lu yàgg joué wu après suñ coupe du monde bi am na fracture am na problème mu genou il est resté très longtemps sans jouer yaa ngi comprendre après euh, quand il est qu'il a, eu la chance dem Saudi Pro League premier match dafa def. Bourde mooy ballon pied boobu mu passe waa ji waa ji mm. dugal il a eu des difficultés en début. deuxième match aussi il, il début mais soo seetloo au moins mu ngi xaw a retrouver petit à petit ses performances j'espère que peut-être il va pas me mais il est entre xam nga man lan lan laa contre si Sénégal dañu gaaw a retraité loolu nit. Mm-hmm. man loolu laa contre des joueurs c'est un footballeur. nekkul dafa bokk ci benn monde artificiel boo xam ne monde à part la il est déjà dans une dans un cadre dans un environnement boo xamante ni peut-être ça peut jouer par rapport à ses performances et tout mais da ngay gis nit mu commencé def nii rek ñu yóbbu ko retraite mm. alors que souvent ki ñu ko bëgg a remplacer sax peut-être il est meilleur temps yi maa ngi dis gars yi poser le débat en c'est vrai. Euh, dafa baax nga am concurrence dans une équipe ci lépp lu mu munti doon sax dafa am concurrence yaa ngi comprendre mais que les gens que les gens xam nga ñu ñu def des des lecture transversales sooy comparé nga dem dans le fond de choses Mody Diaw. Mhm. saison bi mu commencé ak léegi. moo ëpp lu mu encaissé. il a encaissé 16 buts. xaw ma 14 mhm. buts en effectivement benn benn benn match la def match bu rëy. te contre Paris te joué contre son formateur. Mm. te loolu ce des choses qui entrent en jeu. yaa des fois soo xoolee nawetaan sax club bu ndaw ah bu soxee ko ci club bu mag suñ tasee day métti. Mm-hmm. yaa ngi comprendre moom Paris lañ ko formé c'est normal il veut il a explosé il a fait un très match mais pour autant c'est pas une raison gars yi bu jël voilà Edouard xamul dara il est vieux tel tel tel. en 2002 mais pourquoi pourquoi gars yi fixé wu aussi tamit si si Seny Dieng si si Modou Diaw alors que Seny Dieng il a fait une grande CAN. xam problème bi lan la xam lan la c'est parce que champion euh, championship est moins suivi que e Ligue 1 L1 e France xam nga Ligue chaque jour yaa ngi seetaan équipe première division alors que deuxième division anglaise. ñiy toog di ko seetaan sax bariwul mhm. da nga gis koo xamante ni saison bi yëpp day dégg ne Mori euh, Seny Dieng def na li mhm. mu dugg ci peut-être Twitter wala YouTube wala je sais xool lan la def mais les gens ne les suivent pas c'est pas la même nga xamante ni tey jii suñu ne Clermont day football ak tey nga ne je vais regarder Mori Diaw tel tel tel mais Aliou l'avait dit en conférence de presse en 2000 génération 2000 2002 bi am na ci bëri dañ leen teel a yóbbu retraite mhm. et vraiment dañ bàyyi ku ci nekk je sais pas je sais pas benn situation ñu ne dañ koy yóbbu retraite mais peut-être am na ñoo xamante ne nit day nekk bi moo na nekk seen dernière CAN peut-être si non ça c'est sûr il y a certains jours nekk di buuxante mm-hmm. moi je suis persuadé que peut-être euh, un gars comme Cheikhou Kouyaté mm-hmm. su CAN bi jeexee suñ ko gañee mun na jàpp ne peut-être moom voilà quoi mm parce que déjà il ne joue plus les role pratiquement regroupement dina ñëw accompagner booy mais il ne joue pas mais nañ bàyyi booy ñi yóbbu retraite mm. nañ suñ demee ba sentir na ñoom il n'en peut plus mais dañuy toog mm. et puis Cheikh je te donne un joueur qui boo xamante il est réguler en Premier League chaque jour euh, au moins chaque week-end au moins su dee trente minutes dina football mais pourquoi nga ne da nga bëgg c'est vrai que révolution day am mm-hmm. mais ça doit te faire de manière progressive mënoo rek jël benn équipe rek sànni leen góol baag défense baag parce que ils sont des trentenaires et c' est un débat boo xamante ni temps yëpp mooy posé su kenn defee contre contre performance ñu ne kii dafa war a bàyyi parce que xamul dara. Mm-hmm. kii dafa war a bàyyi xamul dara donc Edouard je pense que il a été déterminant bi ñuy gagné coupe du monde euh, coupe d' bi. il a été déterminant aussi suñu qualification double confrontation contre l'Égypte mmh. vrai que nag naa nekkul ci formam yooyu noonu mais il est en de se refaire petit à petit peut-être on doit le mhm. parce que. li nekk ci ginnaawam gënuñ ko. d'accord voilà. d'accord euh, Gaye Kourch euh, yow lan ngay wax ci maanaam ci polémique boobu par rapport ak Seny Dieng ak Edouard Mendy de même que euh, sénégale yu bari dañoo jàpp ne ñenn ci ay joueurs yi peut-être bi mu nekk seen last kan seen dernier CAN parce que comme Gaye nga ko waxee sénégalais dañoo gaaw a màgget le joueur. waaw pour pour Edouard moom xam nga eh, il a il eu une mauvaise passe après la coupe du monde il s'est blessé ensuite après am ay contre-performance au début euh, euh, euh, euh, en Arabie Saoudite il avait il avait quelques difficultés c'est vrai mais léegi nii gis naa ne dans les dans les deux dernières semaines il était en train de revenir mm-hmm. et je pense que s'il fait un bon match demain euh, euh, contre le Cameroun mun na ko gën a encore joxaat confiance et mm-hmm. un gardien a besoin de ça mais de toute façon à mon avis Edouard reste un très bon gardien. il y a un peu moins un peu plus d'un an euh, les gens comme en, en comme le meilleur gardien du monde. Mm-hmm. donc euh, man euh, je j'espère que ne bi ko gars di wax gëmu ko. Mm. Euh, parce que quand on te dit que t'es le meilleur au monde ne les crois pas donc sama sama xalaat quoi mooy bi ko gars di wax ya y a un an en arrière qu'il était le meilleur gardien du monde. euh, moi si j'étais à côté de lui je lui aurais conseillé de ne pas euh, mm-hmm. les croire mm-hmm. les écouter et aujourd'hui que les gens euh, veulent en faire un, un piètre gardien aussi je, le, je lui demanderai pareil de ne pas les de ne pas les écouter il mm-hmm. reste un très bon gardien et il a Euh, il reprend euh, euh, performance yu baax yi commencé waat na ñëw et je lui souhaite de faire un très bon match demain comme ça ça nous permet d'avoir après pour la suite un Edouard Mendy en toute en toute confiance mm. et un Edouard Mendy en toute confiance c'est c'est c'est l'assurance derrière quoi voilà tout à fait l'assurance derrière coach merci beaucoup coach waaw man remercier di di remercier aussi ñi ma bokkaloon plateau bi yëpp ak ñu doon seetaan jaajëf coach merci beaucoup coach kooku mooy Malick Diop di coach adjoint bu équipe nationale bu U20 coach yaakaar ne du yàgg dara incha allah yaay dinañ jox li nga xamante ne moo ne maanaam équipe bi ñu ngi la ko ñaanal ñu di ko yéene nañ ko aussi ah euh, Pape Djibril waaw un plaisir maa ngi doog a bokk ak moom plateau c'est vrai daan naa ko cette année tout ñu ngi doog bokk plateau jàng nañ quoi xam nga ñun yi dañu bëgg a nekk <laughs> coach nekk lu ne ci lu ne wax uh-huh. en a été peut-être pour le pour l'intérêt du Sénégal pour l'intérêt de l'équipe nationale mm-hmm. voilà en tout cas c'était un plaisir d'être avec vous c'est partagé voilà Djibril Gaye nekk journaliste sportif nekk ci journal bi nga xamante ni moo di Source A di wax tam bàyyi tamit sama binôme ba grec waaw baabu jaajëfal également à nos invités parce que aussi euh, on a encore fait notre match comme ni ma koy waxee ah di wax ne rendez-vous très prochainement j'espère qu'on en tant que euh, ñoo xam ne ñuy débriefer la victoire Hmm. jaajëf kooku moo di Alaaji Grégoire di jaajëfal aussi ki nga xamante moo di soxna Adja bi tey nekkal ñu fële ca Lens yaakaar ne bu dina indaal li nga xamante moo di maanaam victoire bi dimanche euh, bii di ñëw di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne yàlla nekkoon seen kër doon seetaan magazine bi nga xamante moo di sport euh, maanaam sport sur 7 di leen jox rendez-vous incha allah dimanche bii di ñëw ak toute l'équipe daa ngeen jëf